jikin o jega yaay son felu yawa wanje na yaay kay to son merci beaucoup jaajëf kooku mooy euh, ndaanaan kuli fadirin mu nekk koo xamante ni kenn ko présenté mu di euh, Latir Fay, Latir Fay, Ngourane ànd groupe xel xelaar donc tey nag moom mooy suñu gan ngir ñu waxtaanee lépp li nga xamante ne euh, ci parcours bi mu def aussi perspective ci carrière am parce que Latir Fay, nekk na ku ñu dootul présenté Latir ñu ngi lay ñaan nga sur ce plateau Latir Fay, Ngourane donc di sargal bu baax groupe bi nga xamante ne ñoom la àndal muy le groupe khélar euh, donc sant leen gërëm bu baax yi nga xamantene bu jot ngeen ak ñun sur les antennes de la DTV vivez toujours une partie de cette magie à travers le rendez-vous incontournable toi même tu sais ma xam wala la xam lu mu ci munti doon dañ koy euh, sur ce plateau le Sénégal en entier la wara euh, waxtané est ci ak ceeg Ousmane Cissé pour nous présenter l'actualité politique et sociale ce soir Pape Ousmane reçoit monsieur Amad Diouf coordonnateur national des JBR conseiller municipal à Fatick chargé d'études au port autonome de Dakar nous am eu jeunesse de la l'APR entre chômage euh, désunion et manque de perspective pour la présidentielle 2019 dinañ avons aussi Moustapha Gueye borom sécurité et prévention comme il a l'habitude de le faire euh, tous les mardis Moustapha nous euh, avons sécurité et prévention enfant en voiture ou à pied les bonnes euh, habitudes euh, léegi euh, lii nii lan moo tax choix bi nga lu tax laajoo kii loolu. déedéet déedéet yow yow yow yow parce que on se sait man ak yow. Moussa kon yow ni dañ la wàll. <laughs> waaw léegi lu xew Ousmane wàll ah. moo moom la mu ñëw rek tëb rek commencé ma attaqué. daa dafa am xew daa am lii nga tey <laughs> la ca kanam lu bët ñu ngi ànd ak suñuy gan ah, ba tey xam ngeen ne mardi nag mardi bu jot nag allah fa tabarakallah dinañu ànd ak euh, soxna si nga xamantene ne moom moo ñuy euh, taaral suñu plateau bi mu di euh, Fatima Aïcha Bokoum Fatima Aïcha Bokoum nak wara waxtane ci bébé et maman est-il important de choisir un homonyme pour son enfant mu am ci yene waxtane ci oustaz muy Cheikh Bamba Guèye muy islamologue ngir mu indil ñu ay leeral yu am solo ci li nga xamantene mom moom la ñu bi wax ci walum turandoo nak dañuy wax ne turandoo ak juróom-ñaari jikko yi dana ko top lool waye Fatima mi ko ko tuddé doom macha allah doo ko rëccu ndax nekk na ku diiñ macha allah waaw Fatima boo yàkkamtee sax doo leen xamante waaw dal boo xamante ne boo bëggee xamante ak moom da ngay ànd dal ak yar ak teggin ba tax na euh, Pape Ousmane dañ koy féliciter bu baax a baax a baax Fatima euh, parce que aujourd'hui elle est devenue euh, mère c'est vrai loolu moom lu ñëpp ràññee la waaye tamit nekk na turandoo bés ni ki démb tuddee nañ ko doom donc doom boobu ñu ko tuddee nag dañuy ñaan rek mu dund ba am ndey ak baay ah, dund ba bokk ci njaboot yu barkeel yooyu nga xamante xamante ne dañu am yaakaar ci moom bu baax euh, loolu nag bokk na ci li waral euh, oustaz Cheikh Bamba Guèye euh, ñëw ngir ñu gën a mën a yaatal turandoo définition bi ak booy tuddee doom naka la war a tëddee parce que dañuy wax ne en général booy tuddee booy takk soxna war nga dem ci ay ay bërëb yu wute ah pour ñu càmbar ko xool ko léegi nag ndax njaboot dañu war a def noonu waa wala déet dinañ ci ànd ak le grand islamologue mu di Cheikh Bamba Guèye dinañ ànd ak aussi les cheminots du Sénégal en présence président des conducteurs de train au Sénégal mais aussi en ànd ceeg euh, Mademba Camara mi nga xamante ne c'est le premier adjoint bi nga xamante ne moom it mu ngi liggéey ci wetam bu baax a donc ñoom it dinañ ànd ak ñoom léegi nii euh, ci li nga xamante ne moom la Dakar Bamako euh, ferroviaire les trains à l'arrêt les cheminots condamnés au chômage loolu la ñu am yéene waxtaan ak ñoom incha en présence du président Moustapha Diagne mi nga xamante ne wéetu ci benn yoon ndax ànd na ceeg ki nga xamante ne moom wax Mademba Camara premier adjoint du syndicat unique des travailleurs du rail kon bok mbokki ni lañuy euh, présenter yefi présenté xam ne rek du yomb comme ni ñu koy tàmm di defee saa su ne tamit di leen sante di leen gërëm bu baax ci and bi nga xamantene ñu ngi koy and ak ñun ci 99.9 point neuf. mu di euh, Soxna FM la voix des femmes mi nga xamantene yagna yàgg am jëriñ ci réew mi waye tamit di def mention spéciale à tous les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora qui nous suivent euh, grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet www.dtv.sn ay mbokk yu Pape Ousmane yu bari

Mehemen ah loolu la ñuy waxam. Naafiyo Naafiyo Mehemen. Eh, cëm. Naafiyo. waaw ah, Naafiyo Mehemen. bu ma la nee Naafiyo. waaw Mehemen laay wax nga ne muy jam soom. nga ne. jam soom. jam soom man maay wax jam soom. waaw nga ne rek kay. jam rek kay. voilà waxaat ko. Eh, Naafiyo. waxal nga ne wax waxal ne jam rek jam rek kay. voilà Naafiyo. mexemen jam rek waaw jam rek jam soom waaw voilà waaw da nga war a dégg séeréer nag waaw eh, ay waay kon la dégg moom dana dana kii de mais dara ah. rek waaw jàngal xam nga comme yàlla def na iyaan mu ngi fi waaw na la jàngal yaan dembatin du ko jàngal kenn nag mën na paye añ nag mais du jàngale kenn du jàngal waaw du oh. jàngal kenn waaw mën na paye nag añ nag ak yokk yokk la xam-xam ci waaw loolu am na solo nag parce que saako bu taxawul na mm, ndax bu yëbul dara. Eh, eh, musiba day am de. ah taay da nga gën nekk coof de nu mu demee noonu xaaj dafa dugg xanaa. waaw bon euh, sant yàlla rek. Ah? sant yàlla rek. peñe ko nii def sa monture nii. waaw sant yàlla rek parce que xam nga. Euh, fi mu nekk nii ñun. waa ñun waa Fatick ñun waa Fatick ñoo ko yor. ah bon. Ah. Fatick laa dëkk ah bon te nag sama ku baax kooku. nga ne. ku baax kooku mooy kan mooy réew mi. mooy kan ah mooy président Macky Sall. Ah. xam nga man lépp luy animation moo tax bi ma déggee kii. waaw ah. dinaa ne rek xëj na fii mooy fii moom sama kër la ko ah. parce que xam naa ne. bu ñu paree dina am ruq bu ñu toog. xool nu ñuy tegee mbir mi mm-hmm. mais mu jaar ci yoon bu soobee la abo ah waaw parce que jamono ji ñu ngi wax ne am na ay jaxasoo yu ci ama ah, surtout ci ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk ci APR euh, ñàkk déggoo beeg yooyu yëpp xew na euh, yow en tant que porteur de voix loo ci xalaat loolu loolu xam nga kër bu màggee hmm. eh, faw mu am ay xëccoo ah bon kër waaye yow sa kër màgg na waaye amul xëccoo kër gee màgg yow sa kër xëcc màgg na d'accord mais xam nga hmm. euh, foo gis hmm. ànd waaw dina am ñoo xamante ne li ñuy wax esprit de groupe. Mhm. dafay am. waaw ñii dañuy gàtt xel. Mhm. ñu gudd xel. Mhm. waaye lépp lu ñuy wut <laughs> kenn moo ko soxla. foofu lañ jëm. foofu lañ jëm. foofu rek lañ war a ànd. ah ñu ngi dem élection présidentielle 2019. bu soobee yàlla day baax de. day baax de. ah oui ah waaw baax na que gañ meilleur gagne. waaw man de loolu laa ci mën a wax. <laughs> Fatima ngel bi moom. waaw ba ci yëngu yow léeg-léeg. waaw ñoom feccloo nañ ma sax. nga ne fële ma maquillage. <laughs> def naa fa lu dara jaww. nag mooy tax gars yi rafet. Ah. Ah. ah. ah mooy rafetal gars yi. Ah. xam nga nag. Mm-hmm. comme li nga wax. Euh, maanaam personnalité bi nekk ci moom. Mm-hmm. boo àggee foofu ba génn rek nga am personnalité. Mm-hmm. loolu si am na solo bëri jom ba ba ba ñu moom sax duñu foo. jom beeg lépp <laughs> mu ngi ci mu mm. ngi koy wàll daal. waaw la indi. am na solo. dafa bëri jom de. <laughs> mu ngoog bëri jom la. jërëjëf ñi ngi gis ba pare ñoom ñaar ñu def seen noir blanc dafa mel ni monsieur et madame la de. waaw waaw xam nga bambara yi am nañ. waaw ñoom Djibi Dramé. waaw eh, euh, maa yow moom nga nopp waaw. waaw moom nga nopp. waaw kii moom moom laa loof nag quoi moom laa loof de. kii kii nii nii moom. waaw moom laa loof moom moom mu tudd. mu nga ne Astu Jonn. Astu Jonn. xam nga euh, boo xoolee won leen ma jonn waaye. ñu ñooy def la grande nuit africaine di pagne tissé. waaw chaque at dañ koy def. d'accord donc euh, ñu bëgg daal delloo si cosaan.

même ki ko yor sax séeréer la. waaw moom la mooy. voilà roi des arènes sax séeréer donc tey jii euh, yi ñoo bëgg a ñëw nangu lamb ji rek. Hmm. mais séeréer moom moom la nag. attention moytu joolaa yi de moytu ah. xamal la yor ci yi de. ah, ah, ah ci def nànk rek naa noppi boobu. xëy Fatima am na loo bëggoon wax. Euh, ñoom ñaar ñu nekk euh, monsieur et madame. gis mhm. naa ne bambara yi ñoom am nañ pël yi ñoom maabo. Mhm. séeréer si ñoom tamit macha allah. si fin bi ma dégg ngeen di wax kuku sinap yéen xam nga ay jaamu tukkuleer ngeen. waaw samay jaam ngeen. waaw dafa mel ni séeréer ñoom tamit xam nañu kuku sinap. waaw dañu euh, parce que woy bi ñu ngi ciy wax ne. Mhm. Euh, seet bu njëkk ba woon. amul uh-huh. amul woon sinap. Ah. bay am <laughs> ah? <laughs> te. Euh, ya ci ci maam yu njëkk yi. Mm. boo doon dem di nuyoo ji da ànd ak dal ànd yar. Mm. dem nuyoo. boo nuyoo nag bi ñu dalal la mhm. dootoo dellu mais say parents yi ñooy dellu mooy woy bi ñu njëkk a woy mhm. ma bugg a wone ne ca bu njëkk ba amul woon ay sinap sapap ah, amul woon ay koko sinap mhm. <laughs> mais da doon bëgg nit ki rek ci ay ci ay ndigal waajur waaw loolu dafa denc dafa dafa denc ci yéen ci seen culture loolu ba léegi sax ñu ngi ci ñun mu ci yéen ba léegi mu ngi ñun ba léegi mooy valeur yooyu la ñu bëgg rek gars yi di ko indiwaat mu nekk fii dafa am solo parce que mooy doon tax sëy bi yàgg. Mhm. Mhm. macha allah waaye nit ñi dañuy bëggantee léegi ci ay coucou Sinavac ci Facebook. du yàgg du yàgg du mhm. yàgg. parce que euh, boo xoolee rafetaay yàggul. dañu ñu rafetaay bëriwul filtre yi dafa graaw. wa filtre yi. voilà donc ah <laughs> filtre yi xanaa c'est ñi am téléphone yu baax. léeg-léeg nga nga nobanteeg euh, benn xale bu jigéen. boor set nga gis ko nga ne du kooku. nga ne. <laughs> <laughs> waaw dafa am loolu ñu ci mën a nettali. dafa am loolu ci mos a dugg waaw loolu nag dal na sama benn xarit nag. waaw waaw sérieusement parlé may ñu ci lu mu wax. dañu demoon baal. waaw euh, comme gars yi ni ñuy def di këram këram. bopp waaw loolu la ñuy wax nice guddi. nice guddi waaw léegi saa ñu ñu def bi ñu baalee bi pare. ñu jot waxtaan. léegi bi ñu paree ba boor set ñu ne daal gars yi ñu yeewu ay 5 heures 6 heures solu nag ne nañ dem seeti. Mhm. gel bi dem seeti ko. bi ñu demee seeti fogg rek. Mhm. mu mu ubbi. bi ñu waxtaanee jaar si tur bi mu wuyu. saawaay ne saawaay ne non du kii de. Hmm. ma ne ko saawaay. kii keneen kii àndoon ak moom ne ko ah moom la de. Hmm. mu ne non non non ki ma gisoon dem ci guddi. Ah. du kii du kii ah contact muy noonu <laughs> naa ci waaye am ana lan nga ñu mën a dénk ci couple. parce que gis nañ ne euh, bi ngeen di. ànd ak léegi macha allah mu ngi. bëgg yàgg euh, euh, waaw waaw. Ah, bon ñu ngi ñu ngi ñu ngi évoluer nag quand parce que nous ngi joué. jouer ci boîte yu non yéen ñaar seen couple laay wax de. parce que suñu couple suñu couple moom. Euh, jàmm rek la ci gis. Mm. ndax ñaata at ngeen di euh, eh, mot 30 ans de. sha allah 30 ans. ay ah, léegi moom mot 30 ans 30 ans de mariage. waaw léegi mu mot ko. ñii ñu bronze hein? parce que vraiment euh, suñu dom yi. xam nga mariage de kii de bronze. waaw dafa am bronze voilà donc mon mi sax mom mi sax dawul way lu ko ci dugal man maa ko ci dugal ndax la parce que dama amoon aw kat. ba da ngay guddee te moom guddee bi dama amoon aw kat. Mhm. mu voyagé. waaw. Euh, bi mu demee Italie amatuma ku ma aw. Michael suma invité ma. ne ma Latir dama bëgg mu def mooy émission bi mu doon def. Dakar FM hmm, Dakar FM. Hmm. ba ma ne. FM sam maa ngi répété maa ngi doon répété kër ga. Hmm. ma ne waaw yow. tey jii vraiment amatum aw ma ku ma awul est-ce que yow euh, li ngay dëgg ñuy woy doo ko mën da ñëw da ñëw rek xool essayé ah bi ñu essayé mu woy mën woy bi ñu dem ci émission bi amul track amul dara mu woy normal Michael na ma wàlla tiir kii fan la dëkk ma ah kii de jege na ma nag kii moom mooy man mu ne kon doot bul wuta ci keneen fexeel rek ngeen ànd parce que xam naa ne que li nga bëgg dina ko mën parole d'un doyen noonu noonu noonu la noonu la ñëwee euh, maa ngi koy nuyu au passage mm, nit la koo xam ne. Mm. mu nit bu ma jege man aar bi waaw ma jege loolu macha allah ñëpp moo ñooy njëkk jox attestation mm, mm. pour nga mun a am droit d'auteur am carte BSDA absolument voilà absolument loolu tamit man jot naa ko fi liggéey de waaw ah. lu mu gàtt gàtt gàtt macha allah waaw sunu borom def na ko euh, Sodaaf laa fekee ne waaw noonu la duggee ci aar bi loolu ma ko may vraiment ma ko ci sant di ko mu nekk ku am jom nag xam ne buy metti muy muñ buy neex muy muñ neexagul sax quand même. Hmm. mais ñu ngi sant yàlla na mais mu mu mu ngi digg doom daal. waa mu ngi mu ngi muñ mu ngi muñ parce que hmm. xam nga aar aussi dafa xaw a métti. surtout ngay ànd ak sa borom kër. mais dañuy wax jamono ji yow yaay def bës. ci séeréer yi ñu ne yaa koy toj. en tout cas maa ngi toj daal sama côté. waaw parce que xam nga boo ne maay toj rek. waaw te waxaluñ la ne yaay toj. Hmm. day garaaw. ko wax de. Ah, te moo tax ñu invité la merci beaucoup. xam nga am na loo xamante ne def nga ko ak waa DTV. Ah, fii ah, muy aada réew mi. boo gisee ni ma ñëwee. ana nga ceeg El Hadj Bakay. ma ne la El Hadj fii sama kër la. Saala Bigué Ndiaye waaw. bi ñuy tàmbali Saala dama ko noonu Saala. Saala moytul séeréer yi. Mm. yor nañu mélodie yu garaaw de. mun nañ la daareel de mu ne noonu latir mënoo ci man dara mais bés boobu jour boobu. Mm-hmm. nee na Latir nag def naa quatre appuis. Mm-hmm. ah loolu la wax ah waaw. cinquième bi nga ko waroon doon nag bi nga doon bëkkale rek. xam naa nag. Mm. bu may ba moytuwul balaa may may kii parce que ñu ngi waaj tournée bu mag. macha allah pour que fesal li nga xam ne moom la suñu waaj yi. ba nga tàmbalee ak léegi nii ci wàllu musique lan nga jot a réaliser. Euh, comme album comme ay tournée. bon euh, def naa tournée pour en Casamance. boobu maam Biram moo fi nekkoon bon. entre euh, li am Casamance ak suñu réew ma pour vraiment sensibiliser touti def parce que suñu rôle la nak ñun les yi am droit am nañu euh, audience aussi dem né djola bi parce que nous ci la lepp mhm. te fu amul kon loolu jot naa ko def en mm. Casamance mm. euh, fu festival am aussi ci Ndefleng ànd naag Mbagnick ci loñ quatre fois presque artistes yëpp man rek maa ko def pour 72 euh, heures bi am ci def naa Gambie bon Europe daal laa defagul te loolu defe naa sens rek buy ñëwagul mm, mu ngi ci yoon bi peut-être mu yoon bi mu ngi yoon bi mais vraiment régions yi nekk fii yëpp mm-hmm. jot naa vraiment dem euh, wone tuuti cosaanu séeréer li séeréer am mu lool. Mhm. te gars yi liggéeyuñ ko ba tey loolu mhm. nag lay jooy. d'accord xëj na ñi ma toogal fii danañ ci am xalaat. bien parce que vraiment euh, musique séeréer euh, boo koy déglu bu fekkee dañ ko liggéey carrément tubaab bi dina ko déglu ndax man damay joué Radisson Radisson Blu. mais boo booy joué tubaab yi nii la ñuy toogee. Mhm. parce que double gamme bi ngay joué. ak percu yi. dafa am lu leen ciy jaaxal. te nit ki bu mënoo ko woon lu mu xam.

ba pare en même temps may nuyuwaale waa orchestre national ndax falaa nekk ci ñoom pour représenter séeréer yi bokkul ak sama groupe bi nga xam ne maa ngi koy ànd ak ay Baye Fall yi ñoom Cheikh Fall ak Modou waaw euh, vraiment mu nekk euh, euh, batteur yoo xam ne mm-hmm. yàgg nañu nag ci orchestre yi ah. Cheikh Fall mii mm-hmm. tegal na sax Youssou Ndour tegal na ku nekk macha allah kon bu may ànd ak ñoom aussi fierté la ci man mm-hmm. xel day daal ndax xam naa ne

l'actualité de l'Internet appelée ActuBuzz, c'est maintenant. bien, si on se réfère à Dakar matin, révélation, les sociétés euh, minières font main basse euh, sur des milliards de francs CFA destinés aux collectivités les euh, abritants. Après avoir parlé de, des fonds de péréquation que, l'État a encaissé au détriment des collectivités locales, Source A s'intéresse au fonds d'appui au développement. Ce fonds est destiné à contribuer au développement économique et social des collectivités locales situées dans les zones d'intervention des sociétés minière. Le canard euh, de Castor Bourguiba, dans son euh, enquête, a appris que les potentiels bénéficiaires ne sont pas informés de l'existence des du euh, fonds. Quelques-unes confient, quant à elles, qu'elles n'ont reçu aucun centime des entreprises minières qu'elles abritent, alors que celles-ci doivent leur verser 0,5% de leur chiffre d'affaires. Nous en Dakar matin en première actualité. Par Ousmane, commentaire. Jafé Jafé, la famille Judo na ci li nga xamante ne moom lañ doon xaar euh, ci société minière yi nga xamante ne ñoom ñoo war a delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoo ci collectivité oui mais euh, li ci gën a euh, kii sax mooy le fait ñu ci bëri ci ñi ngànk collectivité locale yi xamuñu que ni fonds yooyu noonu disponible na mm. que ci ñoom la dem ñenn ñi daal ñenn ñi mooy chiffre d'affaires yi nga xamante yenn sociétés yi ñu ñuy implanté ci collectivité local yi zéro virgule pour cent yoo xamante ne dafa destiné collectivité locale pour seen développement dañu war a reversé et d'ailleurs soo xoolee boo fàttalikoo sax même bi ñu doon wax ay kaaw Sococim mhm. y a eu pas de leaders yoo xam dañ nañ ko dénoncé di wax ni reversement bi li ñu waroon jot pour que ci wàllu pollution ak jafe-jafe yu ñuy am que au moins mun leen dimbali ñu mën a taxaw côté boobu duñ ko dee jot te loolu c'est valable pour beaucoup de sociétés tey ñu ngi implanté collectivité locale yoo xam te ni taxawaay bi ñu waroon am ci ñoom ñu koy jotee duñ ci jot mm. mais pour man poigne boobu ñu ngi koy xaar ci ñoom mooy ni loolu seen droit la ñoom ñoo war a am taxawaay gu mat mat gu pour que ñu mën a jot nga xam ne ay fonds la ñoo ko moom le reste bataille il faudrait que nous sensibiliser davantage nous nga xam collectif local locales yi ñu xam ne am na loo il faudrait que nous jëlee et puis tamit état bi def ci def ci taxawaay su ma nee état mooy ñi nga xam ne ñoo amee liggéey bi. nga xam ne loolu seen liggéey ñoom nañ ci taxaw dimbali collectivité locale ñu jot ci fonds yooyu. très bien su ko defee dinañ dimbali ci seen. wàllu yaa ngi wax Sococim man ma wax euh, Sabodola parce que xam nañu ne euh, euh, société yooyu noonu en général dinañu def impact négatif ci wàllum santé ci population yi nga xamante ne ñooy dëkk ci environnement yooyu noonu tey lan nga jàpp ne que ne loolu moo waral ba ñoom mënuñoo verser 0,5 pour cent ci collectivité locale yooyu ngir ñu gis seen bopp. parce que euh, nekk entreprise nga bàyyee ko Mboro wala Sabodola wala Rufisque Tëngéej. Euh, waaw rafet na tamit mu am ndàmpaay boo xamante ne. mais Nicolas doguma la mais am xam nga un mm-hmm. communication également. oui parce que fekkente ne les. collectivités fa la jógee. non communication boo xam ne ku nekk di nga xam li nga moom ci mbir mi je pense que 0,5 euh, pour cent bi. forcément on ko verser les collectivités territoriales c'est clair mais je donne l'exemple de de Kédougou par exemple Kédougou il faut exploiter de de production minière il am solo mais sol. à côté une population pauvre qui ne mhm. vit pas qui n'a rien du tout alors que on devrait même construire des salles de classe des salles de santé entre autres éléments parce que a fait ko mën ko attan ko ndax mais les populations environnantes c'est toujours comme ça. donc y a un combat le le y a un combat à mener c'est la population qui doit revendiquer li de xam monde. pour le li est-ce que tu bi loolu la. Oui. Tu as xeex la Oui, wax déet. boobu am oui, ñu leen jiit muy muy muy. Mm. muy muy façon. oui parce que y a des syndicalistes ça peut passer par le par euh, euh, la voie syndicale ça va passer également par un combat frontal yéen ak ñi nga xam ne ñu leen ñooy exploité pour ñu def dara c' est un combat frontal à mener. Mm-hmm. forcément il y aura résultat. loolu kese la. d' accord c' est un rapport de force. Mm-hmm. battez-vous pour jël li ko moom loolu kese la. noonu nga ko gisee noonu laa ko gisee. très bien Fatima. Mm-hmm jàpp naa ne warul a parce que dafa a naturellement euh, ñi ci parce que ne euh, ci zone yu mel population yi sax seen ay terre mm-hmm. ah, structure non seulement ñàkk nañ seen terre mais aussi ñi nga jamono euh, le plus souvent dañuy am ay yu grave grave parce que da ngay gis ne société minière yi produits chimiques produits toxiques en général ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee ci alentour bi bu fekkee ne ne ñoom si côté sécurité bi xamuñu ñoom naka la ñuy def ba produit chimiques yooyu noonu bañ a bañ a si ñoom kon ñoom ñooy nekk le premières victimes te affaire yi dafa am ñaar ki nga xamante ne moom moo war communiqué ak ki war jot communication bi man je pense que ñi nga xam ne ñoo war a 0,5% zéro virgule cinq pour cent xam nañ ko devoir là mm. pour nous, mm. ñu ñu ñu verser ko Amana na dañuy def affaire de sénégalais comme que kenn laajuma bon mm. a une obligation pour pour verser ko Benen bi moom mooy état état tamit euh, je pense que responsabilité am la pour que mon muy xamal population bi parce que tey euh, pas ci société minière yi tey mm-hmm. kase boo micro trottoir ngay laaj sénégalais yi ndax xam nga telle information telle information mais ñu bari dañ lay wax non comme par exemple maa ngi doon laaj ay nit mané ne leen est-ce que xam ngeen plage yi nga xamantene dañ euh, c'est interdit à la baignade ndax xam ngeen ko mm. duñ la ci limal duñ la ci limal mm. ñaar donc ak li nga xamantene ne moom wax Sénégal plage interdite ci lañuy ñuy fréquenter donc mu ngi mu ngi non plage yi ñu war a mën a dem mm-hmm. euh, dafa dañ mm-hmm. ko prévu donc amna affaire yu bari yo xamantene sénégalais bi lambda bi amu ci information yi nga xamantene mom mo war mhm. donc puisque situation bi non la démé je pense que état mom mo nous wara dimbali vraiment mhm. buñu démé ba collectivité euh, territoriale ñom xamuñu exactement war nañu am luñu nous jot kon mhm. ça veut dire que vraiment amna ben travail buñu wara def ci côté bobu ci lu jëm ci mbirum communication très bien euh, Moustapha y a même euh, Cheikh Amar hein, qui tape sur la sur la table pour dire que structure bi nga xamantene mom mo nek Ndindori dafa wara fay ay détam donc lolu parce que 0,5 pour non quoi qu'il en soit ñoom ñoo Alors, ah, le conseil, c'est la moom lañ seetlu ci site yi nga minière à fa souvent population est duñ ci sentir mais aussi collectivité locale yi ñi ko nga seen wàllu bopp il y a des droits qui doivent leur revenir pour mener ce combat là mm-hmm. boo xoolee euh, kii mi ngi wax euh, population minière, ñoo war a jël combat bi euh, porte ko ñu hein. je prends l'exemple du central à charbon de Bargny boo xoolee ñoom depuis man je me rappelle il y a un an cela dem nañ fa campagne législative mais loolu lañ doon wax wane nañ fi tere ñu kaas ñu tëj fi ay nit mais ça n'a pas abouti parce que ñi ñuy seqal souvent en général pour la plupart c'est les multinationaux yoo xam ne dañuy bëri doole mm-hmm. Mm-hmm. population bi kese mënuñu faire face à ces gens là li war mooy collectivité locale yi ñu am ay formation yu leen di xamal li nga xam ne moom la ñu war a xam comme source de revenu mm-hmm. par rapport ak exploitation bi fay am ñu ci bëri xamuñu ko de y a beaucoup d'élus yoo xamante ne non il y a beaucoup d'élus yoo xamante ne ils ne savent pas ce qui doivent leur revenu de droit

micro wax gi moom mooy est-ce que mairie jotuñu ko parce que mairie fu ñu xam ne xaalis bi ñoo ko moom dañ koy jëli la question mooy nan lañ koy jotee est-ce que dañ koy jot dugal ko ci budget mairie bi wala dañ koy jot dugal ko feneen parce que ça c'est clair mairie lu ñu xam ne ñoo ko moom dañuy dem jëli ji ko. Hmm. des fois da nga leen dégg ñuy casque que nii il y a le ministère des finances. qui est le di sonal parce que y a des dérogations par rapport à la taxe bi ou par rapport à la taxe B. des fois les maires ils cassent pas mais les maires ils font des ñu am xam mhm. ça mhm. c'est sûr. Mhm. la question c'est est ce que dina delluwaat si population c'est ça la question. d'accord très bien monsieur Kamala très rapidement euh, effectivement comme l'état fait c'est rek li ci sama xalaat un apport de plus beneen affaire bu parce que on xoolee en dehors. Euh, amoon na RSE d'abord <clears throat> responsabilité sociale d'entreprise yi nga xam ni euh, sociétés yi nek ci ben localité dan nañ ko daan nañ fa am am njëriñ tey su fekkee ni sur les sociétés minières am naa ci beneen application bu ci nekk boo xam ne c'est zéro virgule cinq pour cent par rapport yoo xam ne dañ ko war a verser au niveau des mairies. des mairies kooku tamit euh, cër la ci. bi ma ci tër kiiwee rek sant la parce que avec l'acte trois maires yu bëri dañ leen a plus de charge par rapport ak li nga xam ne moom la ñu am ci recouvrement. mooy seen seen revenu. seen revenu bariwul. Mm. donc mais am na mairie yu bëri yoo xamante ne ñu ngi gis seen bopp tamit ci acte trois. waaw effectivement donc c'est dafa balance le quoi. daf ci am ñoo xam ni am nañ ci xaalis loolu am ci ñoo xam ne amuñ ci dara. ils ont même eu des dañuy am sax problème pour fay seen i agent très bien merci beaucoup euh, monsieur Guèye en tant que islamologue lan nga jàpp lan nga ban jàngat nga ci am ci li nga xamante ne moom la euh, ci société minière yi nga xamante ne ñu ngi euh, ci gox goxaatu réew te mu am loo xamante ne ku ci nekk a war ngaa am as boo war a jël yóbbu ko ci mairie bi nga xamante ne euh, ci commune boobu nga nga bokk euh, lan nga jàpp ne loolu moo war a nekk rôle état ah pour que ku ci nekk rek war cee mën a gis boppam. xam nga état moom daanaka ñun dañuy def luñ jël dañ ko koy sëf donte nag moo jiite euh, li sëriñ bi wax sànq moo ci nekk rek. mbir mi day doon loo xamante ni ku nekk bay moom sa tànk lay nekk mm-hmm. ku nekk da ngay tàmbalee ci fi nga ci sa bopp ak ci say njaboot ak fi nga nekkee après ñu soog a avancé dem soog a seeta état mais ñun ñëpp bu ñu toogee croiser les di xaar état moom day mm-hmm. day day gën a métti rek métti waaw d'accord sotti Latir mm-hmm. waaw comme ni ñu ko waxee rek ah. parce que waxal waxal sa xarit ba. Euh, mooy sa xarit. bon mais mu euh, jàppale gars yi rek ah. pour mu fexe ba teg leen benn loxo boo xamante ne ku ci nekk dina. verser zéro def li mu mën. Hmm? gis nga euh, li sëñ bi wax sànq nii. Hmm. ku ko teggi rek nga teggi dégg nag. nga àdduna. ku ci nekk danga am wàll fi nga ne loolu mooy indi gëm sa bopp nit ku nekk sa wareef si réew mi war nga ko béy bul xaar kenn parce que tey bu ma doon xaar euh, maanaam nga nga ñëw jël sama loxo bi teg ko ci gitaar bi plaquel la accord plaquel ma bi bëgg ma woyloo waaye du jaar yoon waaye mm-hmm. man may def effort. pour kon da ngay da nga bëgg a dellusiwaat ca la saala bi di wax mën nañ laa def loolu ne waaye yéy moom ak sax ak war naa moom. yaa koy defal sa koy defal sa bopp. te loolu foofu lañ toll nag. très bien wallaay foofu lañ toll. d' nañu ko sant rek te ñaanal ko rek. très bien te xam ni fu mu jëm yoon bi dina leer. incha allah très bien et pour clore Pape Ousmane dafa mel ni euh, à un moment donné tu n'es pas d'accord par rapport ak l'acte 3 de la décentralisation moi je dis que y a certaines communes yoo xamante ne ñu ngi seen bopp ci acte bi. waaw d'accord naa c'est-à-dire man au-delà de. sax loolu waaw non si si ah. li nga wax am na am na mën nañ ko mën nañ ko nangu parce que doo jël lépp kap xalab mais man li ma wax mooy. soo xoolee yenn société yi mag yoo xamante ne état daf ci am part te foo ci gis di ay euh, ni ñu koy ay conseil d'administration yo xam te ay sénégalais ñoo fa nekk nii la plupart dama naan je me demande est ce que ni ñuy négocier état paris mi am su ko wax sama xel dafa dem ci ICS. Nicolas do gis fenn entreprise bi doon ni industrie chimique du Sénégal bi ñu ko dalee wax ci réew mi ba légui do dégg fenn fo xam tane taxaw nañ di communiquer ci nañu yëngatoo nañuy waxe xam nga lu fam lëndëm ICS bi nekk Mbour.

indi leen ci biir ñuy def main d'œuvre bi nga xamante ne ñun doomu sénégalais yi nekk mbooro ñoo ko waroon def ça c'est un problème dama ne gis nga Nicolas xam nga lan moo am ci réew mi dañuy topp moom laa la ba wax ni cest à ñun dañuy topp ñun ci réew mi loo xamante ne amul benn intérêt bàyyi li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg soxla askan duñ ci taxaw te man jàpp naa ne tey njiit yi bu ñu amoon fulla gu mat dem taxawu ICS boobu noonu ne dañuy liñ bat la fa ne parce que état daf ci am part

jërëjëf Pape Ousmane Cissé mu nekkoon première actualité de l'internet appelée appelé nous ñu doon wax révélation les sociétés minières font main basse sur des milliards de francs CFA destinés aux collectivités les euh, abritants euh, Moussa Gueye je ne sais pas si euh, tu étais tu es au courant quatre Sénégalais tués dans un accident en Italie. Pas de naa c'est un accident. de sécurité et prévention. un accident malheureux autour de 12 personnes il ay africains mu def choc ñu ñu ñu ñu man ça m'a choqué parce que je me suis dit que ça c'est des choses rares qui arrivent en Europe. mais damay waxtaan ak sama benn mbokk mu ne ma ah est que yóbbu ñu fa jikko sénégalais toog war takk seen tur takkuñu ko oto bi këpp ñu loru si

Italie Euh, am amna ko xamantene ne mu ngi tuddu Babacar Touré di dénoncer le Samba Mbayaan érigé en règle par les animateurs et journalistes euh, Fatima. <laughs> waaw lu ñuy ñaawlu la. Euh, si ñi nga xamantene dañ koy def euh, Samba Mbayaan dafa am fuñ koy défé même bu fekkee ne ak ñu koy def tamit ah, am ñu ko moom ah. am ñu ko am am ñu ko moom surtout bu ñu né Samba mbayan sa xel dafa wara dem ci ngenté ba ci mariage wala ku xewlé mhm. nga indi sa wala géer bu gis géwalam euh, voilà euh, géwal bu gis géeram mhm. ah, wa je pense que en télévision wala en radio soxla nañ leneen mhm. parce que da nga nekk ak di wax ak euh, des milliers de personnes yo xamantene comme ni ñu doon waxtaanee amna ay information yo xam ne xamuñu ko dégguñu ko fenn donc ñun ñoo wara tok toog bi jox leen la bonne information mais pas pour leneen. très bien ak ay Samba Mbayang. Samba Mbayang très bien man de kenn ko dégg ci 88.9 mu di euh, Dunia FM Radio bi nga xamante ne euh, c' est la voix du cœur nga xamante ne du lundi au jeudi ak samedi sax hein. ah. Hein, de 9h à 12h. Euh, TMTC miniature TMTC mu ngi foofu. Modou Mbacke Niang mu ngi fa Aram Touré mu ngi fa lépp ñu ànd ci équipe bi nga xamante ne moom laa yor de 9h à 12h Pape Ousmane nag maa ngi koy wutal prox ndol damay bañ ñu dóorante ay arrêt ci biir <laughs> studio parce que wax noppi mu mu continuer di dem léegi nii Moustapha a koy téye parce que dafa war a daaneel <laughs> di dem. très bien donc li ñuy def nag mooy rentrer dans le vif du sujet pour parler avec monsieur Amat Diouf euh, coordonnateur national des GBR euh, conseiller municipal à Fatick chargé d'études au port autonome de Dakar li va war a waxtaanee monsieur Diouf day jëm ci euh, jeunesse de l'APR entre chômage désunion et manque de perspective pour la présidentielle 2019 balaa ñuy dem ci question yi dañu bëggoon rek nga wax ñu appréciation au titrage d'abord je veux féliciter mon cher ami Latir. parce que vraiment moi je suis serré, oui doute, papa ak de mm. ba pare donc donc c'est mon devoir de l'encourager et de le féliciter. Je rek gis euh, mu cadre Je euh, ba pare affaire ba pare hein? xam nga lu parce que je pour ah fii gën a neex. ba lii lan la yow parce que booy tëgg te amoo ko fecc aussi da doon beneen mbir. am na nag ci kat yu doy waar. Eh eh waa Diouf yaa ñëw ba fii laaj feccikat xaaral ma Fatick rek. ñëw ñëw incha allah ah Diouf. Ah, léegi Diouf TMTC eh, amul feccikat. c'est-à-dire kaay ma wax la dama lay jox concept bi pour beneen yoon nga bañ a juum damay bañ nga def loolu. <laughs> Euh, TMTC amul kat. <laughs> TMTC dañ ne orchestre musicien les instrumentistes le lead vocal ñu woy mu jeex. nice fecc moom kenn du ko fecc. léegi ko. oui tu as raison sur le titre là c'est extrêmement important. Mm. Euh, donc, Nico Libélé, exactement c'est ça. Nous avons des problèmes sérieux au sein de notre formation politique, la paire, au sein de la jeunesse. Il y a un, problème d'emploi, il y a un problème d'organisation, mais il y a un problème également de perspective. Et vous êtes au pouvoir Je ne sais pas, le titre, mais vraiment, c'est un titre contentieux. Il y mais c'est pas Ousmane, c'est la rédaction de la DTV. Hein? Ousmane, c'est le meilleur. Hein? Mais, ah, mais il est derrière moi. <laughs> Ou à côté de moi. <laughs>

Déjà, on avait des problèmes sérieux avec le régime euh, passé, le régime de Wad. Notre président Macky Sall a eu des congrès avec le passé. Nous avons eu des faits, nous avons merlé, nous avons eu des faits, nous avons eu am ñoo aussi dañoo pare pour jaay seen bopp ndax ndax tout le monde, c'était un fourre-tout y' a des jeunes de l'AF de de des jeunes des des jeunes qui étaient au PDS des jeunes qui n'ont jamais fait de la politique entre autres jeunes ñooñu ñoo dajale seen doole ak sen pexe ak sen engagement nek waji nak nag il ko moom mi bëgg gis nga nak ba ñu ci kuréel googu nag dañ nek jaxasoo duñ bokk ay position duñ bokk ay yoon duñ bokk ay voix duñ bokk ay gis-gis loolu moo tax mu nekk un fourre-tout maintenant la réflexion wala la mise en place de quelque structure que ce soit day nekk problème bañ créé ba tey mosuñu am structure bu stable

xam nga dañuy am jafe-jafe. président Macky Sall qui porte la paire. xam nga dañuy jafe-jafe hein. mais c'est la réalité. aussi c'est est que on n'est pas là pour jouer quoi. la politique c'est du sérieux. Mhm. donc xam nga le problème c'est quoi bi ñu demee nag ba gagner nag au pouvoir il fallait impérativement nag ñu xool ne nan la ñuy def est ce que dañuy structuré wala est ce que dañuy continuer mais ñu xool ne ba ñu gagné ba tey chaque année ñu dem élection bu ñu dem gagné ko te amul structuration mais ñoom mieux vaut continuer dans la division structuré parce qu'il est clair qu'un parti pouvoir structuré parce que les ambitions sont là. gars ambition parce que dafa am lu ci c'est ce qui fait que tay ñuy gis. responsable partout à la limite euh, quand dans une position dans une de choix des avantages hmm. c'est lié à ta position. donc donc parce que boo jiitoo gëm nañ ne la fa nekk comme avantage moom ngay jël dañoo dañ ko soxla comme yow donc noonu la ñu gisee donc loolu moo tax à chaque fois day am ay xëccoo ay xeex ay rente léegi xam nga li am solo mooy lan moo ñun au sein de paire nous avons la chance au sein de la paire. nous avons la chance d'avoir une jeunesse de valeur et de qualité une jeunesse responsable je parle de la paire. après que Maxal est devenu président de la République donc actuellement lu fi nekk Abdou Mbow moo fi nekkoon boobu on n'était pas au pouvoir yàlla dimbali ñu ci li amoon noonu structuration bi ñu amoon verticale me voir horizontal, parce que déjà c'était pas stable Nous, faisons ba ba def pouvoir Macky Sall ne nous allons changer la jeunesse parce qu'Abdou n'est plus jeune il faut remplacer par un autre il y a eu des candidats il y a eu des combats des combats sérieux au sein, au sein de la jeunesse. moi qui vous parle j'étais candidat à la congé nationale. Hmm. mais quand le président a appelé dans son bureau pour dire que bon il y a pas de d'élection le parti c'est mon parti je choisis 13 fois pour des critères tel tel tel nous, en tant que militants ordinaires, en tant que militants de Maxal, notre devoir, c'est de respecter ce choix. Ben nous l'avons dit, Monsieur le Président, à partir de maintenant, nous avons respecté votre choix. Thérèse Faye, c'est le numéro 1 de la jeunesse. Tout le monde va suivre. Bon bataille, Thérèse Moïse dirigé, vous avez entendu lors euh, de notre université républicaine à Mbodjen, le mhm. président a dit Thérèse ne sera pas remplacée. Kibit 2019, moi, Finek. Mais les femmes, nous savons que c'est un tous de Donc, le problème sérieux.

c'est-à-dire coow li ñuy yëkkati ci prise de position la wala bëgg ay privilèges comme ni ñu ko waxee souvent. non coow li Ousmane mënut a ñàkk ci nga bëgg nan nga bëggee ñun tey sénégalais yi. Uh-huh. ñu comprendre coow li ba jàpp ne coowu njariñ la parce que am am ñaari façon coow am na coow loo xam coowu njariñ la que ñi coow li ñu bëgg mooy bu ñu ci jotee ñëpp jëriñu ci am coow loo xam lu ci ëpp amul njëriñ sinon ñenn rek lay dimbali coow loolu moo tax mu bëgg ñi lay déglu ñu mën a xam exactement wala di la seetaan coow loolu nga xam ne ñu ngi koy gis ci APR ci ndaw ñi coow lu am njëriñ wala amul njëriñ. am na njëriñ amul njëriñ am na njëriñ. ay amaat li ngay def moom lu ma je que su ma waxee A wax B damay wax pourquoi A pourquoi B coow li am na njëriñ amul njëriñ parti politique boo xam ne tekkiwuñ dara amul militant comme le réew mi wala ay parti Pastef bu Sonko nga xam ne kenn doon dégg doo dégg seen coow parce que kenn xamu leen c'est un petit parti de rien

ne bëri na fi opposition bi fi yuuxu di wax lu leen neex président Macky Sall mais ngoon gi dañuy daje fale euh, ci ruq ba jël seen enveloppe dem. mais je vous donne l'exemple de Sonko. Sonko il passe tout son temps et je le dis tout de c'est une révélation Sonko tout le temps il passe son temps à attaquer le régime. Mm-hmm. mais combien de fois il a écrit des lettres pour être reçu au palais on a refusé Sonko. Mais moi, je parle en connaissance de cause. Je suis un jeune leader, je ne parle pas d'avant. Mais, mais, mais est-ce que beaucoup, je mais est-ce que beaucoup de gens droit droit Mais comment on peut le motiver ah, Comment on peut le motiver Le matin, le matin, comment on peut le matin fusiller le régime attaquer le régime frontalement le soir il rase au au bord. est-ce que rase ou la wax motivation mais objet ce n'est pas le plus important. Ah, l'essentiel l'essentiel l'essentiel c'est qu'il y a des gens comme lui qui attaquent le régime le matin et le soir ils rasent les au bord du palais pour être reçus. Mais ça la mais de quelle cause regardez regardez regardez de quoi il n'y a pas d'opposition quelle opposition de quoi. c'est quoi il a 68 ans il n'a pas de militant dis-moi Ousmane tu es un conducteur politique de croire qui est son niveau de la jeunesse. C'est qui C'est pas le plus important. Qui est sa responsable de femme ne pas. ne Parce qu'on ne parle pas de quoi, on parle de vous, on parle de la paix. non, je parle de l'opposition en réalité. Pour vous dire qu'il n'y a pas d'opposition. Regardez. Regardez, non, je termine un peu. Est-ce que les politique un Mais l'ancien de la douane il dit qu'aujourd'hui, le régime-là, c'est un régime de rien du tout. Maxal n'a rien fait dans ce pays. Ce qu'il a dit, taboura, zéro. Mais lui, de la même manière, il a opposition. Mais lui, il a oublié que dans un passé récent, il était le PCA de ce cousin Mais quand, quand euh, Dangote voulait euh, baisser le prix du ciment, c'est lui qui avait dit non. Mais il faut que les gens arrêtent. Il ne faut pas qu'on oublie le passé l'histoire, elle, elle, ne change pas, elle est invariable. ces gens-là, ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent. Macky Sall n'a pas d'égal dans ce pays, c'est le meilleur. Macky Sall n'a pas d'égal dans ce pays, il faut donc l'union ressentir. Mais l'union ressentir, c'est le ressenti. Pour rester, il Sénégal. Pour rester dans le sud sujet. tey lu ci bëri ci ay secteur boo ko laalee ay jafe-jafe la pour rester pour nga donner un président Macky Sall moom mooy guerrier amul kenn ko ko égal dafa war a am benn ressenti mooy askan nekk à l'aise mun koo mais tey boo génnee la nga wax mais il faut que tu ci côté aussi. un peu. parce que ce que tu dis c'est extrêmement important. li il faut ñu sentir mais c'est vrai parce qu'un peuple a besoin de sentir son leader. Macky Sall est un leader qui est senti au Sénégal. D'accord. Senti comment Pour rester dans le sujet, tu as parlé d'emploi des jeunes. Oui, senti... D'emploi des jeunes. L'État ne crée pas d'emploi, tout le monde le sait. Je parle sous le contrôle des syndicalistes qui sont... Et pourquoi le président avait fait L'État crée les conditions pour la création des, emplois. Mais hier, je ne parle pas de hier matin... Les 15 000 mais il faut arrêter. Mais il hier, matin, il y a 10 milliards de nos français. Alors qu'avant hier, hier matin, avant hier matin. Sénégalais, s'il vous plaît, Nicolas, les Sénégalais qui Adjouf, Adjouf, savoir ce que vous Laissez-moi Monsieur Diouf, Monsieur Diouf, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. question parce que deux fois de suite, est d'accord. logique que faudrait que ñu mën lay wax ne rakat kat boo waxee loolu am na leneen lu nekk wet gi yaa ngi wax DER ay financement yu jot a dem. 15000 jeunes mais avant 15000 bénéficiaires pour un montant de 10 milliards. mais avant boobu mais président dégg nga lu mu leen wax. oui boo leen fayul. police da leen di topp. d' accord ñu yóbbu leen procureur. exactement mais avant boobu. y avait d' autres structures yu fi nekk yoo xamante ne ci loolu lañ leen yëngu. il faudrait qu'on nous dise un peu ANPEJ depuis biñ ko taxawalee ba léegi ñi mu jotee financement lan lañ ci mën a am comme réalisation lan ci jot perspective ñu wax ñu ñu def table rase ñu wax ñu ni ñu dem je je crois que je vais faire votre patron pour lui dire de me laisser le micro pour que je puisse parler un peu. ah vous appeler notre patron. suñu patron da ngay parler un peu. oui patron damay woo Idi de. Idi Idi Idi doo Idi da ngay dox ndànk rek xëcc ni micro bi rek mu waay. Euh, non wala est-ce que wala wala wala ma. <laughs> Euh, vieux vieux wala euh, Babacar May doomu El Hadj Bekkaay daggal ma micro bi. Ah, xam nga xam nga xam nga le président Macky Sall. c'est un homme très lucide. arrivé au pouvoir vous savez ce qu'il a fait il a trouvé ici un pays confus. waxal wolof confus boo xam ne dafa jaxasoo ANPEJ plutôt damaa ANPEJ. ANEJ ANAMA en FNPJ, mm. qu'est-ce qu'il a fait mm. Je vais agréger tout ça en une seule institution qui s'appelle ANPEJ. Mm. Centralisé pour mon ANPEJ. Il y a beaucoup même mission, même orientation, même cible. Mais bon, je vais agréger ça en, ANPEJ. C'est ce qu'il a fait. Mais quand même am lu lu il faut ñu également il y avait peut-être des failles dans le mode de financement peut-être au niveau de l'Anpege. c'est vrai c'est pourquoi Macky Sall a logé mais laissez-moi terminer un peu laissez-moi terminer un peu j'en arrive j'en arrive financement je ne suis pas Ousmane bi ko taxawalee ba léegi laissez-moi terminer s'il te plaît je ne suis pas du genre à répondre à une mais question bi totale mais question bi nga non laissez-moi terminer un peu laissez-moi développer un peu allez-y après l'agrégation Anpege. Mm. On a constaté qu'il y a des dans le mode de financement, c'est vrai. Il y a des problèmes sérieux. Mm. Qu'est-ce qu'il a fait a créé la DER, dire que logique au niveau de la présence pour plus de contrôle et d'orientation claire par rapport à sa politique. Ce qu'il a dit, la mission est claire. Moi, président Sall, je crée la DER. Ce n'est pas pour les jeunes de mon parti, mais c'est pour les jeunes du Sénégal. Quand empêche encore dissoudre. Attendez Laissez-moi terminer un peu. non, non, non, non, moi, je ne pas besoin de répondre à des questions, oui ou non. Laissez-moi terminer un peu. C'est oui ou non. Ousmane, je suis d'accord avec vous, mais laissez-moi terminer. Tu as raison, mais laissez-moi terminer. Maintenant, bien créé Derby, qu'est-ce qu'il a fait Nous avons dit que Maxal est fort, est tchahal, nous avons dit que tchahal, nous avons déposé parce que nous avons Mais là, nous déposer déposé, nous avons déposé à la préfecture parce que le délégué général a fait le tour du Sénégal a fait une émission claire avec les préfets et les gouverneurs Il que le transparent le sérieux il a déposé des projets bancables Il ci ay weer ñu Il a yi fo annoncé ko ñu financé aujourd'hui il a démb tey sikat fa quatre. fa gars yi toog lañu jot ay message BN2 BN2 c'est la banque nationale de développement économique ay message de l'air. la BN2 vous envoie 3 millions la BN2 vous envoie 27 millions 10 millions 15 millions 50 millions 10 béton je ne parle pas du vent. Ah, la question, ce n'est pas... Je le financement... Je ne parle, ah, pas du concret. Aujourd'hui, l'État a créé les conditions d'emploi Mais concret, bon, japonais, il y a un concret, bon, on va le a 15 000 bénéficiaires, j'en un montant de pour moi, c'est concret. Maintenant, le contenu, l'inactivité. Voilà, il y a un élément au-delà de ce que vous avez dit, les projets bancables, qui Est-ce que l'eau jàpp ngeen ni loolu rek. Mhm. am ngeen ay élément yu mun a firndeel ni bu ñu bàyyee ndaw ñu daw mooy ni ñooñu dootuñu amati soxla ci xëy que dinañ mënal seen bopp. très bien dinaa tontu pare avancer un peu avancer un peu wax naa ne léegi ne état du créer emploi mais mais il met les conditions si c'est le cas. Mm. DER d'abord dans un premier temps quinze mille emplois déjà dans un premier temps quinze mille emplois. Mm. quinze mille comptes bancaires yu bees. donc le taux de bancarisation a augmenté. Mm. deux points yokk nañ ko ci taux de bancarisation bi. Il y a 15 nouveaux comptes bancaires. 000 nouveaux comptes bancaires. Mhm. Il faut que ça soit clair aussi, c'est du sérieux. Mm -hmm. Mais que c'est. Mais n'oubliez pas que tu as parlé de la question d'emploi des jeunes, non mhm. Mais la fonction publique a fait combien de recrutements Les ASP, nous avons fait deux recrutements au niveau des ASP. Le premier recrutement, c'était 10 000 jeunes. Le deuxième recrutement, c'était 3 000 jeunes. Ça fait 13 000 jeunes qui ont eu Yakar. Ni c'est les anciens militaires qui avaient perdu espoir doon toog garab gi ataaya. ban impact la l'arbre à palabre. ci vie wu hmm. ban impact la hmm. mais imaginez je donne l'exemple. à Fatick là où j'habite à Fatick. il y a 567 ASP. Chacun a 50 000 francs le mois. Ça fait combien L'argent circule à la vitesse de la lumière au sein de la ville. Je prends l'exemple de Fatigue. Je prends l'exemple de Fatigue. Moi, c'est un maire président Macky Sall. Si je date jour, je me dis pays mu jox ñu élément code bi mo fa demoon doxantu ci ñom c'est des jeunes yo xamante ne bokk nañ ci ñu jappel président Macky Sall ci jamono bi mu ko soxlaa tay am rek la question de l'emploi de son définitive mënu nekk mais mais mais j'en suis sûr et certain que le président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts par rapport ak ak l'emploi des jeunes d'accord il a recruté dans la fonction publique il a recruté, il a recruté au sein des ASP il a recruté des policiers il a recruté des gendarmes il a investi beaucoup d'argent au, au sein de la DER et chaque année il met 30 milliards d'accord pour le financement de jeunes. Très bien, Fatima. Mm-hmm. Euh, sànq Pape Ousmane laaj na la lan moo indi pëccëxoo bi nga ne yéen da ngeen nekk parti bu mag a mag moom moo tax c'est normal ñu dégg coow beeg loolu mais xam nga dañuy faral di wax ne par exemple sa papa papa nu mu yaree doom rek ba muytul doom bi noonu lay màggaalee yéen est-ce que Macky Sall yareewu leen ci ku ci gën a fës rek ñu koy dégg fu ne di gis fu ne danaan ah ce gars là mu ngi liggéey xaar ma jël ko Il di koy jox de poste de responsabilité Il mm-hmm. ñëpp a ngeen def loolu pour bopp ba ngeen xam ne faire ku ci nekk fu ne mm-hmm. pour on dirait l'armée mexicaine hein tout le monde devient général ou tout le monde est général bon je suis d'accord sur le fait que la paire n'est pas structurée mais elle est organisée il faut qu'on soit d'accord sur le terme paire, elle est organisée xam mm-hmm. parce que am responsable des jeunes am responsable des femmes il responsable des enseignants des responsable des arabisans des responsable yo organes donc l'organisation, moy organisation mais structuration moy coordinateur adjoint trésorier trésoriers. amul APR d'accord avec lolu mm-hmm. c'est parce que maintenant, les la au pouvoir c'est ça aussi la réalité ko mais il est clair que nous en tant que jeunesse de la paix, on n'est pas divisé. Moi, je ne suis plus de la cogère parce que j'ai dépassé l'âge de la cogère. Et j'en profite aussi pour lancer un appel à tous les jeunes de la paire parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux ñëpp di je nous appelle 35 ans je le dis et je le répète parce que moi je suis témoin de l'histoire nous appelle pour que nous di ko 40 ans la am que Macky Sall moo ko wax ba parti donc kon na ko ñëpp bu kenn waxati les réseaux sociaux que je nous appelle 35 ans Je nous appelle, c'est 40 ans c'est le président qui l'a dit en termes clairs en plein jour au siège donc nous nous ko ñu xam. d'accord bi top topp man man bokkatuma ko au moins 40 ans, c'est vrai. Mais c'est mon volonté là, parce que j'ai préféré, avec les gens avec qui je travaille, nous créer ce nos tout les jeunes boucliers de la République avec des missions claires. Donc nous sommes mobilisés, nous sommes renforcés. Nous savons que beaucoup de projets les jeunes. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. D'accord. Donc on sort de là. Très bien, Moussafa. Monsieur Diouf, euh, je vois que vous, à chaque fois que vous me posez des questions, vous répondez à côté. Parce que moi, je suis resté sur ma fin. Qui question est brûlée, Mais ce Mais je veux dire, pourquoi à 5 mois des élections, vous avez le d'air, Pourquoi pas avant pourquoi nous bàyyi à cinq mois parce que nous bëri dañ ko jàppee comme un recrutement d'électorat mm. parce que quand woo tey financé ko mu leer la ne ngi jëm ci élections est ce que du kooku noonu da ngaa bëgg mu voter pour que bu faluwaatee xëj na loolu ñu dabali wat ko pourquoi à ce moment là pourquoi. Nous allons à 5 les des élections. Mais électorales. Bon. Et de grâce, hein, ne me répondez pas à côté. Non, parce non, que non, je ne pas répondre comme je répondrai à, à un homme politique. Quoi, parce que je pas que tu parles en tant qu'observateur. Bien sûr. Alors, on n'est pas déjà à 5 des élections. Il faut l'enlever d'abord. Deuxièmement, euh, d'air c'est un processus c'est une dynamique lu yàgg a ñor lay à à à son processus final parce que démb c'est le premier financement. mais mois ak ak non dama rek. non non au mois de septembre. Hmm de gis 20 milliards de gën par rapport à Agder xam nga on a sorti 10 milliards. À quatre mois des élections xam nga nous sommes au mois d'août, août. mois de septembre. à quatre mois des élections septembre. De gis 20 milliards de ma ma la affaire. ma main sur le Saint Coran on parle de politique on waruñu fee nekk di mais ici la DER n'est pas destinée à des militants. de la PR ou à des militants de Non, je voudrais qu'on soit d'accord sur ça. mais attendez, attendez. Je peux vous, dire, je peux vous dire hein. que les gens qui ont reçu des financements, mhm. Maxal Sall xamu leen. am ah, délégué général xamu Il n'y a pas de quota. la terre n'est pas une affaire quota terre c'est une affaire des jeunes du Sénégal et des femmes du Sénégal. c'est la réalité. Hmm. hier pour exemple hier j'ai vu un un ami là Ousmane je l'ai rencontré comme ça aux HLM. il me montre son message me dit, Ahmad, moi j'ai eu mon message là je je me suis 3 millions Ousmane beaucoup d'appels, beaucoup D'accord. Donc, c'est pas une affaire de militants, c'est une affaire des jeunes du Sénégal, hmm. des Sénégalais et des femmes du Sénégal. Très bien, merci beaucoup. C'est important. Djadjef, M. Euh, Diouf, coordonnateur national des JBR, conseiller municipal à Fatigue, chargé d'études au port autonome de Dakar. Nous sommes di waxtané lu jeunesse de la paix entre chômage des unions et manque de perspective pour la présidentielle 2019 toujours en compagnie euh, de Pape Ousmane Sissé. Tout de suite li def moy bébé et maman Fatima dans sa chronique radiophonique euh, bi nga xamante ne tey mu ngi ci indi oustaz muy islamologue mu di euh, monsieur euh, Cheikh Bamba Gueye islamologue c'est tout de suite. Fatima am yéene waxtaan ci bébé maman est-il important de choisir un homonyme pour son enfant. Mhm. question boobu laa lay njëkk a laaj ndax am na njëriñ nga utal sa doom turandoo. Mm-hmm. ndax am na njariñ nga wutal sa doom turandoo. wala nga tànnal ko turandoo. nga tànnal ko tur tur tur. ko tur nga tànnal ko turandoo moom du olof. Mm. du olof. <laughs> Fatima macha allah. <laughs> laaj nga laaj bu am solo. farata la ci waajur bu nekk. Mm-hmm. mu wutal doomam turu rafet ko kooku ci war waajur la bokk. ko war na bu juddoo ci moom mu ngénte ko yooyu yeneen détail la. Mm-hmm. mais dafa bokk ci yi ko war mu wutal ko tur bu baax. parce que yonent nee woon na. nañuy tànnal suñu njaboot ay tur yu baax parce que tur dafa mel ne genre gaafal la parce que tur day topp nit tur day topp nit moo tax ci jamono yonent bi moom mi nga xam ne moom mooy suñu rukunul xaw yi bi nga xam ne moom la yàlla royloo yonent bi mu dikkee ak islaam ñu bari dafa sopp seen tur ba ci dëkk bi mu dem fi ñu ko suul sax dafa soppi tur bi parce que Yasrib la ko fekkoon mais bi mu dikkee Medinatul Munawwara la ko tuddee ba léegi ñëpp Medina la ñuy wax. Mhm. mais tuddul woon Medina Yasrib la tuddoon. Mhm. mais yonent bi mu duggsee rek dafa changé tur mhm. parce que tur dafa am solo. da ngay dégg sax olof naan la nit ku nekk kiñ kuñ ko tuddee. day jël ci moom juróom-ñaari jikko. est lu dëggu la. ah. wala loo gëm la. waaw man de gëm naa ko moom. Ah. vraiment ah nga ñu si jox ay exemple yoo jot a gis. waaw parce vraiment tuddee nañ ko kenn xale bi dem ba màgg ngay gis ay jikko ci kooku. ci kiñ ko tuddee waaw des fois imam dina ñëw tuddal la doom wala sëriñ wala kuñ yaakaar. parce que sa doom bu juddoo koo yaakaar ne kii nitu diine la ngay dem pour mu ñëw tuddal la ko. des fois nga tuddee ko tur woo xam ne moom ki toog di ko tudd tur wi da koy neex. ba day ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel ko. macha allah. am na benn ci ci ci ci jamono bu yàggul na benn góor gu ñëw góor gu ñu góor gi Masaar mu tudd benn xale. ñu ne ko tuddee nañ ko xaadim. mu ne tuddee nañ ko xaadim mu ne waaw boobu moom gisul mu ne yàlla yàlla barkeel ko yàlla na yàlla na mokkal alxuraan mhm. te bokk ci ñooñu diine mhm. mais kam ko waxoon yàlla dimbali na ko bokk wattu na alxuraan te ci jamono ji ñu toll ci ñi yor dina la bokk mhm. donc kon turandoo dafa am solo turandoo dafa am solo te gis nga ma jox la ci exemple tey ñaar yi ñoo bokk fenn fi ñu leen defaree muy pot ndaa ak pot sambre Mhm. dëgg la ñoo bokk fenn fu ñu leen di defaree. Mhm. mais tey ku tànk ndox ci potu sàmbur jox la doo ko mën a naan. même bu bees ndax tur wee yàqu. <laughs> Mm, dëgg la tur yi moo yàqu. moo tax tur dafa am solo ci nit yi. Mhm. yeneen bi daan ay saxaaba yoo xam ne ci Medina ñii ay ñii ay saxar la ñuy tudd te saxar mooy firi doj. mooy firi montagne. xam nga day dëgër. dëgg mu ne ko nañ soppi sa tur. moo tax yeneen bi boo xooloon ñi ko waroon ñu ci bëri ñii Abdullahi ñii Ibrahima. ñi Fatima. Mhm. parce que tur day topp borom. dégg naa sax ba ci Jamila sax si noonu la ñëwee Jamila mooy tudd belle ku rafet. ci ci arab ku rafet mais avant leneen lañ doon wax. kañ waaw jeex na. <laughs> dañ ko soppi def ko Jamila mhm. euh, jur yi ba bari nañ. Mhm. mais tey boo nee boo nee mbaam. kenn dootu ko bëgg. <laughs> kenn dootu ko bëgg. des moo tax tur dafa am solo ci li nga xamante ne nii te tur dafa am barke. tur dafa am barke. pour dafa am barke. léegi est-ce que euh, yow mën nga jur ni sa doom amoo par exemple man xawma ku tudd Pape Ousmane personnellement. Mhm. xawma euh, ku tudd Moustapha wala Mouhamed xawma kenn koo xamante ne tudd na noonu. Mhm. mais ma ne tur bii daf ma neex rek ma jël ko jox ko sama doom est-ce que loolu l'islam maye na ko. xamoo nit ki personnellement ku tudd tur bi nga ko bëgg a jox. maanaam tur bi dafa ñëw ci yow rek. neex la waaw. waaw parce que xam nga yonent bi moo njëkk a tudd Mouhamed. Mhm. keroog bi ko yaayam ëmbee ba mu am juróom benn weer mhm. ci la ne ci lañ ko wax ne ko isa wadaatihi sammihi muhammadan mhm. mais yonent bi fekkul tuddewuñ ko kenn mosoo dégg ci histoire ñoo la yonent bi diw lañ ko tuddee mais bi mu amee juróom benn weer ci biiru yaayam ci la am lu wax appehatif boo xam ne moo wax ak yaayam ne ko isa wadaatihi sammihi muhammadan mu jóg nag mu ne ko am rak tumi ay yakkitimaanin kon fa taxtani mi xam nga jigéen dafa gaaw a tiit dëgg la te boobu fekk na jëkkër ji génn àdduna papa waaye la nga wax mu ngeen xam lu muy tekki ci laa jëm mu fekk ko fi mu tëdd mu ne ko ki nga ëmb yaa ngi ci juróom benn weer waaye bu boo amee juróom-ñeenti weer da nga wasin mais soo wasinee tuddee ko Muhammad ndaw si bëgg a tiit mu ne ko mbir mi nag nëbbu ko loo mën ci nëbb rek ko ko mu ne ko ah mu ne ko waaw ne ko boo ko defee rek di nga di nga di nga di nga di nga di ci gañe mhm. ndaw si nëbbu ko léegi biñ paree yonent bi bi mu ganee àdduna rek ñu tuddee ko Muhammad léegi nag tur wi jaaxal waa Màkka ndeke Muhammad mooy ki nga xam ne dañ koo sant mhm. moo tax benn waxkat bi mu koy tagg daf ne ko wa xaamidun wa ahmadun wa muhammadun mhm. mooy koo xam ne sant na yàlla waaye yàlla sant na ko waaye lépp lu yàlla bind itam wëlbati ko nag sant ko kon kooku xam nga gàngel nañ ko tur bu baax te boobu lu ne am na fi Abdoulaye am na fi Ibrahima am na fi Ismaïl am na fi lu nekk am na fi mais moom yàlla moo ko tànnal Muhammad kon tur am na te fekku ko fi kon nit sañ nga am sa doom tuddee ko lu la neex mais nag fexeel ba tur wi na nekk tur woo xam ne na ko xool foofu laa bëggoon ñëw est-ce que léegi nit ñi ñu ngi xool vraiment jikko yeeg ku ñuy tuddee seen doom parce que tey papa Ousmane wala benn Nicolas day nekk milliardaire day bëri turandoo waaw ah, man exemple yii laa bëgg ñi may jox ñi koy jox ci man mais exemple buñ la tëjee yooyu boo accidenté yooyu noonu da ngeen koy jox ñeneen mais Nicolas bu nekkee milliardaire yooyu nañ ko nangu waaw en général dañ koy faral di gis waaw hmm? ñi nga xamante ne daal macha allah poche bi macha allah dañuy faral di bëri daal turandoo ndax ñu ngay xool jikko ba olof nee na mm. takk jabar maye jabar takk jabar ak tuddee doom ku ko def foo ko war warta def boo ko rëccoogul sa fan daa guddut ko def fa nga ko warut a def boo ko rëccuwul sa fan daa guddut gudd waaw mm-hmm. lim la bëgg a wax mooy sa fan bu guddee di nga ko rëccu mm-hmm. sa doom boo ko tuddee koo ko warta tuddee mm-hmm. balaa ngaa dee di ko rëccu sa sa sa doom boo ko mayee koo ko warta may balaa ngaa di di ko rëccu jabar boo ko takkewul fa nga ko war a takkee balaa ngaa dee di ko rëccu parce que yooyu dafa jege nit. te doom lenge or la. Mm-hmm. lenge or la doom moom bu la ko yàlla joxe mooy jox na la lenge or mais lenge or buñ la jox rek nag. Mm. pour nga jariñu ci. yaay fexe ba tëgg ko. Mm. yaa yaa ciy sonn lool. Mm. ba am ci chaîne. mën cee am jaaro ah, mën cee am lam mën cee am. Ah, waa léegi nag dafa bokk ci pour xale bi. xam nga sakk la ci xale mu juddu. màgg nga bëgg a waxtaan ak moom ma ne ko waaye yow xanaa gisu sa turandoo ni mu mel. Mhm. sa turandoo ndikal nikal ni mu baaxee. waaw waaw maxtaar sax. ni mu yaroo. nañ tur bi di. ah maxtaar la waaw maxtaar. yow yonent bi lañ la tuddee. ñii Nicolas rek loo ci mën. Eh, eh, maa ngi jéggalu de. waaw waaw waaw xoolal maxtaar waaw xoolal gis xool ñu yàqee. ah ci tànn bi ndeysaan kañu tànn. ndeysaan ah, te tuddee la yu bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw ah, waaw ba ma ko waxee maxtaar hmm? parce que tey boo ko kooku sa doom boo ko bëggee boo ko tuddee maxtaar soo ko bëggee delloo si day yomb dëgg parce que da nga nan ko way yow xanaa gisoo sa papa muxtar mi mu la tuddee ni mel. xolo ni mu baaxee. xolo ni ko réew mi joxee cër la. bu waxee ñëpp déglu ko. macha allah te la ngay wax juumoo nag de. léegi ko nga kooku loolu rek avantage la. dëgg la te tey tamit xale bi da koy tiitaroo. da koy tiitaroo xam nga tuddee sa doom xuri. maanaam da nga jël ay. wala kenn bëggul wala amul yaakaar. waaw dëgg la te ñu war a am yaakaar ci moom. waaw waaw am na benn paa bu ko tuddee dem na léegi ba màgg léegi poste la doon liggéey bi mu retraité. Mhm. bu ko paa yi di dañ naan ko amul yaakaar mi Mhm. benn paa bëggoon na koo change naan am na yaakaar mais mënatu ci dara. dëgg la amul yaakaar. Ah. ay kenn bëggul. Hmm. Ah, nit ak may laaj. xuri nee na ma ñu laaj la eh, ngay doomu jullit. am xarit bu la jege lool nga fonk ko lool moo xam góor la wala jigéen la waaye boo leen diine muy katolik la nga am doom bu ko tuddee lan la ci lislaam wax. ah, ah loolu nag moom wax dëgg fa yàlla lislaam nanguwu ko. nanguwu ko de xam nga ñun daanaka lislaam bi saytuwuñ ko ñun lislaam ni ñu ci arrangé rek lañ jël. mais tamit dañuy wax ne l'islam difficile du lu compliqué. waaw compliqué wul. Mm-hmm. compliqué wul accord mais tamit nag yolomalul ba mu ëpp. parce que loola bu yàggee rek génn gi ci lislaam man naa am. génn ci lislaam mën naa am. Mm-hmm. gis nga buñ delloo tuuti ci alxuraan rek. alxuraan dafay yàlla dafay tere sax jullit bi. Mm-hmm. mu jàppee keneen ku jullit. comme xaritam. wala meilleur amem. loolu dañ koy tere. waaw parfois dañuy dañuy gis tamit ci euh, sëy yi. mën nga am sa doom. nga gis ne ne euh, jëkkër ji kat da ko bëgg a tuddee koo xamante ne amaana na jabar ji neexu ko. wala vice versa. léegi en général tur boobu noonu fan la war a jugee ci ku góor ki kase ku jigéen ki kase wala il faut que ñoom ñaar ñu waxtaanee ko ba juboo wala ku góor ki ku mu wax rek kooku la. déedéet sans abi ku jigéen moom bàyyee ko moom. Ah. parce que bàyyi nag moo yilif doom yilif waajuru doom. Hmm. kële kële ëmb dañ mais nag mën nañu waxtaan. <laughs> wala mën ngaa bëgg sa jabar. dañ koy fanaanoo est-ce que dafa nekk lu ñuy fanaanoo tamit. lan bëgg tuddee sa doom. comme ni ñuy wax ne euh, boo buggee takk soxna baax na nga dem seeti Latir seeti Amaat euh, seeti. Euh, Oustaz ñu ñu seetal la ko fanaanoo ko. est-ce ah day am day am. am na benn mag mu baax ci réew mi bu ñu ko tuddoon ngeen xam ko te yaakaar naa tudd ko sax du yàqu mm-hmm. ku ñu doon wax Cheikh Alhaji Abbas si dabbaax mm-hmm. macha allah xam nga dabbaax ñu bari ñu ngi naan dafa baax dafa baax dafa baax mm-hmm. te fekk dabbaax ji du olof dabbaax ji ki ñu ko tuddee moo sam moom la ñuy dàkkantele dabbaax kooku ñu ngi ko tuddee Abdul Aziz dabbaaxil maghribi te maam xaaj Alhaji yi dafa tëdd rek gént ko bi soxna si yeewee ko mu tuddee ko doom fekk parce que biñ koy annoncé ne ko Cheikh El Hadj Abbas gën na àdduna 1904 boobu mi ngi yor téere Cheikh Abdoul Aziz euh, Dabakh bi ñuy wax Ibris. di ko liir. Mm-hmm. mu tuddee ko ko. parce que dafay am. parce que après mais gis nañ ne kon turandoo am na njëriñ parce que après gis nañ ni maam Dabakh meloon. Mm-hmm. parce que far Dabakh ji sax ñu dem ba mujj gi su suñu langu ñun muy firi ne moom dafa baax. Mm-hmm. te Dabakh mi ngi firi kuy wulli der. maanaam ni uude yi di def der loolu kooku góor googu loolu doon liggéey mhm. nga foofu itam nga profité waale fi wax ne jàng xam-xam ba am ko teewut liggéey mhm. mais ñun nag léegi dañuy gis ko ci jàng ñaari aaya wala ñetti saar rek mhm. daal di sol sa garam bu affaire bi dox nag dégg naa nag seen kii bi dafa dox ban ci championnat bi nga ne ban ci championnat islamologue oustaz waare dégg naa championnat bi dafa dox sama maam de neewoon na ma islam ji bi ko logee la yàqu bañ ko. logee la yàq dañ ko kon yàbbi. d' accord gis nga Maxtaar. waaw nettali waxi jàmbur. Hmm. jëru day li kaala. te ñun ñëpp waxi jàmbur la ñuy nettali. wax moom jeex na bu yàgg. Uh-huh. yàlla moo doon wax te wax na kim doon wax loo mu yónent bi jottali na ba pare. Uh-huh. très bien euh, beneen laaj delloosi na euh, ñu ne euh, ndax jël sa doom tuddee ko ñaari tur maanaam Penda Seyni. Mm-hmm. wala nga ne Daba Aïcha. comme Fatima wala nga ne Nicolas Mokhtar wala nga ne Fatima Aïcha. ñu ne loolu tamit eh, danga am ñaari tur wala yow Moustapha rek la. Mouhamadou Moustapha. waaw ah, d' accord parce que dafa am kilifa goo xamante ne nee na moom bi ñu koy tudd. Mm-hmm. bi ko papaam di tuddee. Mm-hmm. Eh, ay ay ay mbokk papam ñenn ñi. kenn ki bu kaasee rek ñu dolli benn tur. keneen kaas ñu dolli moom. maanaam eh, waaw dafa mujj. Jean Pierre Mamour Sylvestre. Michel <laughs> Guèye la tudd. ah léegi nag ñu ne bi bi ñu ne Jean Pierre Mamour dafa kaas. ne ah yow kon du boole woo mu ci tur bi. ñu dugal ko ci ko ci. noonu noonu noonu ba tur bi dafa mujj gudd. léegi ñuy laajte loolu lan la ci dina wax. ñaare nag kooku dinay am parce que sama maam nee na ma ne benn waay dafa am doom dem ci gaa yëpp ku ci nekk mu ne ko sama soxna am na doom te yow laa koy tuddee. i mu mm. gaa yi.

nga ne lu mu wax nga ne nga ne waaj lu mu wax. gaa yi naa ko gaa yi rek. ah nañu ko kon léegi xale bi nu mu tudd. gaa yi rek gaa yi rek sant. sant baayam rek. Seck wala Jaw. non Jaw lay sant. ah Jaw lay sant. Jaw Jaw lay sant ah, wala Seck wala Seck waaw waaw. Guèye. très donc euh, ci loolu nag xam nga euh, Fatima ci bës bi li nga xamante ne jot nga ci euh, tànn mu di est-il important de choisir un homonyme pour son enfant ci loolu nag dama ci sant di gërëm bu baax di ci ñaanal Bakary Bakary Banora sama xarit la moom nag mu ngi liggéey ci beneen tele mu di Sen TV guddi bu jot nag bës bu jot ñooy nekk mhm. soxnaam moom mu ci sànq waaw waaw mu ngi ko tuddee gars yi de. waaw de waaw ñu ne boo ko bu ko tuddee gars de. waaw parce que tamit xam nga Bakary boobu tamit dafa am problème boobu ah. waaw xam nga tamit foofu des na jot. des na. Mm-hmm. parce que Bakary Babacar la tudd. waaw mm-hmm. Moïse Moussa a tudd. Mm-hmm. Souleymane. Zil Souleymane la tudd. yooyu tamit ñu maytu ko ndax yow. Euh, dañuy wax ne bu dëkk fii HLM de. Euh, Souleymane Souleymane Ndiaye la tudd ñu koy woowee dafa góor bu doon wax góor gi ko defal. mu ñu doon jàngal. waaw ba mu ñuy jàngal ba mu yàgg mu ne bàyyi leen

Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité. La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toutes dimensions, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 300 250 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car international exceptionnelle sur les découders TNT by Excav 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement, au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. lii nag la ñuy wax neex ba weesu abonnement si ñetti junni au lieu de ñeenti junni. manam n'y a tuer jënd ñu may la ak TNT by Excav dal ça su ne ñu bett manche dans toi même tu sais le rendez-vous incontournable du def mention spécial à tous les Sénégalais d'ici euh, yi nga xamantene ñu ñoom ñuy bàyyi xel parce que xam ngeen ne euh, télé bi mujj naa euh, télé mobile des DTV Sénégal l'application nit ñi diñu sétane ci Dakar ak liko wër rawti ci doli ñi nek ci li nga xamantene mom lañuy wax Tata Kinglon Dem dik Senlon Ndiaga Ndiaye taxi clando particulier ñom ñep ñu ngi leen di sargal bu baax rawti ci doli les chauffeurs les conducteurs ah conducteur wala chauffeur lan moy nek ki bi conducteur chauffeur amatul amatul chauffeur amatul ah. d'accord mais yow chauffeur

njëkkee am doom jigéen la euh, caani ko mënoo maa tuddee jigéen waaye nag euh, am na góor ah léegi nag euh, Bakary la balle est dans ton camp am nga problème nag loolu nag la ñuy def ànd ak sécurité et prévention mu di Moustapha Gueye, mu ñëw comme ni mu koy tàmm di defee c'est tout de suite Enfants en voiture ou à pied les bonnes habitudes dans sécurité et prévention Moustapha

ce qui fekk mën nga ñëw ba mbëkk xale bi soo a xam ne laal nga obstacle. oh là là parce que xale boo ànd ak moom di dox dafa war a nekk côté intérieur trottoir sa côté droite. Mm-hmm. mbëkk bi moom mooy bi njëkk bi bi ci topp mooy xale dafa nekk ci univers boppam. Mm-hmm. mën nga ko téye mu féete coté tali bi mu gis beneen moromam de l'autre côté de la rue su amee envie rejoindre ko mën na bipp sa loxo. du tàggoo daw traversé te du la tàggu. Mm-hmm. alors que moment bi muy dem yow amoo ben angle d'action parce que mi ngi sa côté gauche jëm côté gauche. très bien yow bala ngoy koy fek fekk yegg ci digg bi alors que su nekkoon côté droite côté trottoir. Hmm. su bi sa loxo bala muy traverse tali bi peut-être par réflexe ding ko meuna ding ko meuna retenir. Hmm. donc beaucoup de gens le font dañuy dox. wan auto yi ginnaw mais aussi téye xalé yi féetale côté côté droite. donc lool non, c'est des choses à éviter. Hmm. beneen bi stop moy mak buy dox ci circulation bi gis xalé bo xam lu sa xalé nga war ko meuna a il faut l'aider à traverser mais en lui montrant aussi nga woon ko naka la ñuy prochainement mhm. parce que lu ñuy soxla la beneen bi stop mooy en voiture li ñu constaté mooy bon les gens ils se déplacent ak seeni mhm. mais souvent du ñu respecter normes d'accord da ngay gis gars yi bu dawal pour faire plaisir aux enfants dañ leen di bàyyi ñu taxaw ci kanam wala sax ci ginnaaw ci ginnaaw ñaari cas yëpp dangereux d'accord parce que li tax mu dangereux <laughs> li tax mu dangereux mooy xale bu nekkee ci biir oto ah, takkuñu ko dañ koy considérer comme projectile tey ji oto bi buy daw à 50 km/h. Europe su un choc xale bi day déclenché wu fi mu jugee à cinquante kilomètres heure pour dem heurte ji pare-brise bi ou bien bopp ñi nga xamante ne ñoom ñoo toog ci kanam. d'accord ñu gis nag ay ay ay personnalité morale ay ay personnalité publique yoo xamante ne ñi ngi def loo xamante ne <laughs> respecté respecté wu ñu normes yi. alors que maa ko def mu jeex. alors que ça va. <laughs> waxal maa ko def. waaw waaw alors que c'est pour le revoir waaw moom da koy def moom. moom bu yàggee benn yoon nga moom sa ah, waxal nga waaw mais xale yi gisuma fa siège homologué ci oto bi alors que dafa war am siège homologué. pour continuer il faisait il faisait il faisait vingt trois heures minuit. vingt trois heures voilà donc mu nekk lu doy waar xale yi taxaw. Euh, aw ma sax argument bu ma war a a argument donc kii ma war a nekk Fallou gën a nekk Penda ñu nekk seen siège homologué ñu ñu bouclier siège yi ba bu choc amee ñoom ils sont retenus par par le siège par la ceinture de sécurité ñu gis ne aussi siège bi ñu ko waaw ñëw sama kër nga woo ma. waaw danga ma soxla ñu war a gisee. waaw du dëgg. waaw may génn ñuy naaw. il faut ñu top ma léegi nag euh, seen siège en général su ma koy teg foofu. mais da nga war a loo yàkkamti yàkkamti da nga war a jël temps. defar siège parce que c'est une question de sécurité. d'accord yow tu es responsable de la voiture mais aussi de la sécurité des enfants. ah nëbbatu. non nëbbatu ma en fait dama bëgg. comme kii na ma rek. <laughs> waaw waaw c'est vrai effectivement mais bon ci feu action bi la djuk quoi bu ñom ñoom ñaar ñuy ñu uuf sama kaw. non non mais moom ah, loolu dafa war a dans ses habitudes. parce que wa wa non amna ay xalé dina génn ak mom souvent dina génn ñom souvent donc ça doit dans ses habitudes muy génn rek mo am réflexe jël siège homologué yi bu ñu duggee mu placé leen. mais bu ma gisee xale yi ñu taxaw ci ginnaw daf may xaw a choqué d'autant plus que jotone nañ ci waxtaan ba paré ba mom ci wal boppam mu joxoon ay suggestion donc si je le vois. c'est que vous signes de comportement Fallou naan ko tonton Moussa Wade loolu lii wulu leen. ñu kii ñëw ba jege leen di leen ma gis mu dugal bopp bi ci li biir oto bi naan ma waa mais ñoom mais kon Amady incha allah. mo tax jëru jëluma benen chronique bi laay pour rap léegi ma tay suba bi nekk ci radio bi di animé jékki-jékki Moussa Ba yónnee ma chronique am. chronique am dama retaan mo ne ki ma lay tapas waye ba tay nanguna naa te dootuma daal incha donc léegi pour ñu ñëwaat ci chronique bi léegi ñi nga xamne am nañ siège homologue dafa am ay normes. d'accord siège bi su fekkee ne koy placer à l'avant da koy placer dos à la route. mais aussi nga désactiver. airbag avant bi parce que soit que placer dos à la route il y a ko positionné juste c'est entre airbag bi. Mhm, comme ni en cas de choc wa ce airbag bi déclenché. dañ la joxaat image bi comme ça nga mën voilà en cas de choc là ce airbag déclenché déclenché dafay éjecté xale bi da koy projeter contre le siège mm. loolu tamit mën na ko indil ay commotion cérébrale yo xamante ne mën na ray xale bi mm. bu fekkente ne à l'arrière da koy placer sens normal de la marche mais aussi nga boucler ko ci biir siège bi mm. ba nopi siège bi nga attacher ko avec une ceinture de sécurité nga supprimer jeu bi yow sa wàll bopp nga gis nga xool ndax ils sont bien bien gonflés légui nak nga jéem occuper occupé xale yi jox leen bu ñuy fowé pour ñu bañ perturber yow sa dawal mais aussi pour ñu bañ a ennuyer wu. Mm. lenn rek laa d' ak yow mooy nek am nga ay doom def nga vitre teintée arrière pour naaj bi bañ leen sonal lo c'est une recommandation bo yoré ay xalé mën nga utilisation de vitre teintée pour l'arrière du véhicule. Mm. pour naaj bi bañ sonal xalé mais prochainement vraiment il faut nga sangale xalé yi ñu toog. parce que lolu nga def tu as mis en danger la vie de Fallou et de Penda. d'accord te loolu seen yaay sax waru ko très bien te waxtaan nañ ci fii. d' accord appris hein. j'ai appris aujourd'hui. Hein. d'accord euh, euh, oui oui mais amna dama am benn cas. Mm-hmm. mu ne man damay bëgg di ànd ak samay doom. waaw mais bu ma leen takkee ci ginnaaw. dañuy jooyee ba ñu yegg. ba man dootuma mun a dawal. jox leen ay jouet taxul ñu concentré parce que ñoom lan la ñuy bëgg mooy gis mbedd bi di xool mbedd bi. léegi boo leen teree loolu ñoom. Ah. dañuy jooy ci ginnaaw. Ah, te jooy boobu après dafay mujj perturbé ah, bi. soo leen takkul ñu jooy après yow yaay jooy. donc il faut leur faire comprendre que lii nii ñii la war demee nii la ñuy demee oto dañ leen ci yar. les premiers conducteurs dañ lay wax ne man sama des influences je les reçu de bu dee dawal xuloo ci tali say doom loolu la jàpp noonu la ñuy bu dee da ngay dawal di téléphoner tout le temps comme ni bi di manipuler nekk ci GPS bi say doom aussi loolu la ñuy yaay le premier moniteur de tes enfants il faut leur faire comprendre que ne bu ñu duggee ci oto bi dañu war a toog ñu takk leen ba ñu yegg suñu li ah, a jug xam nga léeg-léeg damay foo di wax jaajëf waay moo tax Fallou léegi da koy mu ne la <laughs> ah, jaajëf foo ko déggee ah. tamit nag bàyyi li ngay def parce que jàng na ay jikko ci yow Tukam boo leen yabee aussi nga dem fo warta dem ñom bu ñëwee dañ naan demoon nañ fii nii. waaw non non gis naa cas bu mel oui oui oui oui oui. Euh, très rapidement parce que euh, en général ñi nga xamante dañuy dawal et tout parfois ay charges day bëri ci ñom ba nga hmm. xamante ne am na yenn dépenses yo xam duñ koy faral diko bëgg diko bëgg def. est-ce que siège bi c'est c'est accessible. c'est accessible bo demee ci venant yi à dix francs mën nga am benn siège bu bees boko ko jënd ça te revient à 50000 vers le mais ci venant yi bo demee mën nga am siège à dix mille. te day dëgg man siège yi mm. dañ koy nettoyer raxas ko ba mu set mu muy normalement. Absolument. donc c'est c'est des choses accessibles hein 10 000 francs c'est c'est vraiment accessible pour nga ne transporter say merci beaucoup euh, Moustapha enfant en voiture ou à pied les bonnes habitudes mu école lu am solo loo man aussi euh, monsieur Ahmad Diouf de l'APR moom it jàng na ci bu baax a baax ndax bokk na ci ñi nga xamante ne bu ñuy génn njaboot bi da di euh, Dakar Bamako ferroviaire les trains à l'arrêt des cheminots condamnés au chômage Nous avons ci M. monsieur Moustapha Diagne président des conducteurs de train au Sénégal et Mademba Camara euh, premier adjoint mon euh, Moïsen, premier euh, adjoint bien sûr qui li nga xamante du syndicat unique des travailleurs du rail monsieur le président merci d'avoir accepté cette invitation pour nous waxtaanee jafe-jafe bi nga xamante ñenn ci yéen ñu koy dund merci beaucoup Nicolas si invitation bi. ñoo ñëw pour waxtaanee mbiru chemin de fer. parce que depuis mars Dakar ba ferroviaire a ferroviaire le train on fait plus de train. -hmm. mars ba a train de ko et muy nekk situation boo c'est vraiment désolant parce que si yagul dara le DG du port des nañ ko bi communication monsieur Bey monsieur Bey mu port 18 au trafic au port bi euh, Mali la 18 à Bobo. 70 à bi Dakar Bamako Ferroviaire moo ko transport transporté il y a 5 ans. Mm-hmm. aujourd'hui on est à 0 te mu ne suñu seetaane loolu fibre ba fin d'année. un grand problème le port risque de perdre ses 18%. tout à fait. donc muy nekk situation boo xam situation catastrophique mm-hmm. Et te amuñu yaakaar kenn mu réglé ko ku le président de la république parce que c'est lui. mais qui Demba Ndiaye ñu ngi dégg président de la république ne pour ñu fay euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy cheminots yi loolu fa lañ ci toll dafa am ñu fayee ko am ñu ko wala la. à la retraite. ah à la retraite on parle des cheminots à la retraite. d'accord parce que bi ñuy tasee concession bi def ko DBF. Mm. ñi fa retraité depuis deux ans et plus ba léegi. seen mm. départ à la retraite qui fayu leen ko donc nak biñ len ko fa donc nak depuis lors ñu koy demander mhm. il a fallu ñu dem tëdd ci kaw raay bi pour président di sogo décider pour ñu feneen sen xaliss xam nga c'est c'est des fois c'est écran bi jour biñ ñu ci si raay bi. lu jour ci si raay bi. jour tëdd si raay bi très sahar mu dem sahar bi jógee ci ñëw Dakar chaque matin. waaw bàyyi dañu dem tëdd ci raay pour très très sahar mu dem. di demander sen xaliss au nombre de combien de vieux. ils étaient nombreux franchement. waaw ñu tëdd ci raay yi Moustapha waaw waaw gis nañ bu nekk ay images yoo xam ne c'est c'est triste hein, de voir des vieux de 70 ans ñëw tëdd ci raay bi ne soit ñu fay leen wala raay bi jaar seen kaw parce que loolu rek moo leen des oh là là may laajte nan la ñu war a mën a yegg ba ci niveau de désespoir boobu noonu pour des gens qui ont qui ont servi depuis pratiquement depuis pratiquement 15 20 ans ñuy nekk ci saxaar bi xam tamit bu baax nan lañ mën a yeggee ci ans. depuis 40 ans naka lañ mën a yeggee ci niveau de désespoir boobu en plus euh, lu ci mel ni ay euh, ay saxaar nan la war a mën a daanoo parce que bu fekkee ne dafa ne 18 pour cent bi frein bi dire jël soixante-dix pour cent bi yóbbu ko Bamako. nan la ñu war a ba ci niveau bii nii gestion bi moo baaxul wala dafa amul rentabilité ci transport bi. très bien problème rentabilité on n'en parle plus. le chemin de fer euh, le chemin de fer euh, trafic voyageur est rentable ça à 100%. ça mm. tout le monde ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. moo taxoon bu ko privatiser tubaab bi ñëw jël ko parce que c'est une rentabilité bi. au contraire c'est le trafic voyageur qui n'est pas rentable qui est subventionné dans tous les pays du monde parce que dafa côté social bu muy joué. d'accord Dans le rôle social muy joué moo transport voyageurs dañ koy subventionné. mais le trafic marchandise il est rentable partout. partout on a eu un problème moom bi ko privatiser. la hmm. privatisation a été mal faite. parce que la hmm. privatisation intégrale lañ defoon. ki a ko joxoon moo yoroon personnel bi yor raay bi yor lépp. d'accord te de bi financement bi dafa 10. très bien Pape question pour l'adjoint. est-ce que def un diagnostic bi war. secteur bi ci liggéey bi ngeen pour xam fan ci ak lan ngeen jàpp ni ci taxawaay loolu la ñu war a régler ak le long terme lu ngeen di xaar. waaw jërëjëf euh, Pape Ousmane ci question bi. Euh, am na solo mais diagnostic bi dañuy xaw a dellu ginnaaw tuuti. parce que wax fa dëgg yàlla comme ni mu ko waxee. Mm-hmm. privatisation ça a été un échec parce que ça a été intégral. Mm-hmm. donc ñaari état yi ñoom ñoo toogoon créer benn société bu ñuy wax wala benn société de transition de Dakar ba mu ko ferroviaire. Mm-hmm. donc laajuñu kenn defuñu benn diagnostic teg seeni euh, wax ni li suñ ko ci défé ci xaalis wala doxalé ko ni dina dox ñu essayé ko nañu joxé xaalis bi baaxul doxul ñun nak boobu ba tey ci kaw xeex bi doon ko diagnostiquer mais légui diagnostic mënu cee am parce que bu njëkk. dañ daan wax relance. mais récemment bi président demee ci Baba Diaw diko ko jaale ñëpp dégg na ñu nii dañ koy réhabilité. absolument ñun nak lolu ñu taxu a dañ koy réhabilité suñ koy réhabilité ñun fuñ jëm déjà, parmi nous, la moitié, ou la, majorité sont au chômage. Donc, chômage technique, là, malgré que nous le gouvernement il a l'habitude de dire que nous failles Mais si nous avons salaire, bi, dafa a salaire ba hmm. dara kon dara nekutufa prise médicale amuñu ben indemnité amuñu ken duñu duñu suñu

soo bëggee defar chemin de fer da ngay ñëw ànd ak cheminots en activité ak ña dem retraite ak cadre yi. Mm-hmm. ñu ñu defar ko. la dernière ma ci euh, tëjee rek fenn pour ne pas être très long. Mm-hmm. terre bii ñuy defar. expertise bu ñu jël seen retraité <laughs> lañ dem jël muy ci raay beeg fu ne.

ko maîtriser est-ce que ñom def nañu euh, je ne sais pas ay ay projet yo xamanté djébal nañ ko état bi pour wane né li kat buñ ko fi tegee problème bi kat dina mëna dina fi mëna juggé wala dinañ ko mëna régler à 90% vingt dix pour cent. ñi retraité jamonoy société nationale defar nañ projet djébal ko président. ñi retraité jamonoy Transrail defar nañ projet djébal ko président. ñi retraité jamonoy DBF defar nañ projet djébal ko président ñi ñi nekk en activité defar nañ projet jébal ko président xam la moo la moo si des mhm. toog waxtaanee ko doxalee ko mais fi mu toll nii président moom dafa jël décision mhm. moom nee na dafay defaraat raay bi mhm. de Thiès ba Kidira c'est cinq cent soixante kilomètres dañ koy defaraat à neuf loolu la président jël comme dogal loolu ñu koy rafetlu parce que tamit nit lu baax nga bëgg su président waxee day def day def lu bees d'accord nañ si ànd nañ si mais li ñuy demandé mooy lan temps boobu mën na mettre en application projet boobu nous, les travailleurs en activité qu'est-ce qu'on va devenir parce que pour défaire terre c'est 35 km. Mm. depuis deux ans nous avons ñu pareil. et quel genre de passagers les Sénégalais nous, ont là aussi Il hein. ban un passager Moi, il faut 37 km. mais ça dépendra du prix Le prix prix bi définir très bien C'est lan message fort, en droit des autorités Nous avons adjoint le après ñu président très rapidement s'il vous plaît waaw Sokone euh, suñu message bi nga xamné mom lañuy euh, jox autorité yi mooy euh, faut pas attendre tout le temps que nit ki dem bu au suicide nga koy dooroo ñu amé ay nit xaliss pendant plus de deux ans hmm. il fallait que ñu dem tëdd ci raay bi hmm. et pourtant démarche bu né def nañ ko de bind nañu hmm. defar nañu document defar nañu lépp tek ko fi donc nous demandons que le président ni mu taxawé mom nga il est le seul moom muy messi wu bi ci fi ñu toll. oui mu recevoir cheminot yu ñu wax ko lan la waradef. def. d'accord pour euh, chemin de fer dox. très bien président très rapidement s'il vous plaît. message la fin mom mooy cheminot yi jaaxle nañu. ñu fu ñu dem ñuy wax nak les autorités le président en tête puisque moo jiite lépp mooy def la politique de la nation mu wax ñu lan la namb si ñun.

d'abord abord euh, mooy que ne groupe khelar khelar mhm. waaw Xelaar. paré mhm. pare euh, pour def tourner lan mooy khelar Xelaar mooy gopp bi ñuy béyee. ah waaw d'accord parce que nak dañu né Sénégal émergent. Mm. mais ñun euh, ñun séeréer dañu né Sénégal nat naat nat naat nat nak dañ ci bëgg def ay tournée ci dëkku séeréer yépp pour won leen ni fi ñu jëm fi président Macky Sall visé foofu la. macha allah chaque

Euh, violence bi am ci réseaux sociaux yi ak violence bi am ci vraiment ci kër yeeg jigéen ñi ñuy toroxal ak yooyu ñu ngi ci tournée boobu. suba la dem Louga. ci kàttanu Dakar lañ ko commencer. Souba ngeen suba la dem Louga. incha ak Thiès ak dëkk yeneen dëkk. yeneen dëkk yi ñoo ci top. ñu ci féliciter. très bien en tout cas mu nekk lu am solo national aussi. di ci féliciter ñëpp ñu ci hmm. japp. bu soobee yàlla pour loolu mu na am. jaajëf ah. merci beaucoup euh, Latir Faye euh, Ngourane àndoon ak groupe mu di euh, Xelaar donc hmm. moom dégg nga li ngeen xamante ne joxe na ko léegi nii ci ay programme ah, li ñuy def nag mooy ànd ak monsieur Amath Diouf en tant que ah. coordonnateur national des JBR conseiller municipal à Fatick chargé hmm. d'études au port autonome de Dakar en tout cas ça a été un grand plaisir message à l'endroit des qui nous regardent et d'ailleurs. D'abord, euh, je suis très sensible à la question des travailleurs d'accord mon Bamako vert parce que mon père fut un ancien cheminot. Donc, vraiment, je suis très sensible. Maxal aussi, il faut le savoir, président disponible, ouvert. Hmm. Donc, si toutefois, vous recevez si les problèmes sont bien posés, j'en suis sûr et certain, il va les régler à 90% ou bien à 100% bi euh, euh moi euh, euh, perspective en tant que jeunesse du parti et de la coalition. moi, am une activité pour devant nous. moi on doit faire une pré-campagne pour le parrainage. parce que le parrainage bi moo du élection campagne là élection également campagne là mm-hmm. li ci suñu kanam fin août on va démarrer notre parrainage le Sénégal pour vraiment annuler les signatures pour le président Macky Sall. d'accord buñ ci les élections à venir. pour que véritablement buñ ci accès ak jàmm. Mm-hmm. au soir du 24 février. 2019, que la victoire soit contagieuse partout. Merci beaucoup, M. Ahmad Diouf, coordonnateur national des JVR, e, conseil municipal fatigue chargé d'études au port autonome de Dakar. Nous euh, disons que Samadombaye, Moudi euh, Cheikh Bamba Gueye. muy oustaz tey mu nekkoon ganu euh, Fatima Aïcha Bokoum ci chronique bu am solo bi nga xamante ne defe naa ne ñu bëri euh, gindeeku nañ ci lan ngay tàggatoo. Ah, xanaa di sant yàlla rek di leen sant bu baax di wax ne daal mm, comme li mu ubbee woon rek farata ci waajur wu nekk daal su ko yàlla dénkee doom mu xam ne yàlla dénk na ko lu cher lépp lu muy def ci moom it mu rafet na tur wa rafet na yarin wa rafet na nekkin wa rafet dana tax. bu xale bi gimmee neex a waxal te bu bëggee jàddi tamit di mën a wàññi. macha allah très bien ñu ngi ñaan nag euh, xam naa ne euh, jot amul waaye ñu ngi ñaan euh, Fatima dina lay soxla. ah bu ko defee ngay ñëw ci toi ci see ñiy waxtaan. Ah, ndax tamit am na loo xamante ne bëgg naa ñu waxtaanee ko ci soxna ngir ñu xam ne. li jig kafe jigu leen. ah ndax kafe dañu wax dafa war a foor te jigéen war ta foor kafe dafa war a tàng te jigéen war ta tàng mm. euh, café day fuur te jigéen war ta fuur mm. yooyu noonu yëpp defe naa ne euh, buñ ci àndee ak yow euh, lu ci bëri dina leer insha allah lépp ak mm. Fatima lañ ci sax jëndum xarum tabaski bi waaw waaw waaw surtout borom indi ko <laughs> pour deux mooy fan dañu defoon pause par rapport ak suñu activité en tant que mouvement politique parce que dafa am ko bokkoon ci ñun ko wàññeeku muy Khady Ba madame Diallo donc ñu koy ñaanal euh, yal na ko yàlla euh, xaare àjjana. jaajëf euh, oui Sadou Sadou Soussouko. merci beaucoup jërëjëf en tout cas merci beaucoup à toute l'équipe de production du centre de gërëm bu baax soxna Ndione ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci ànd bi nga xamante ne bés bu jot yaa ngi koy ànd ak sa borom kër di ko jàppale d'olel ko dooleel ñu ngi lay ñaanal wér ak wérle waaye di def mention spéciale à tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs ailleurs yi nga xamante ne rendez vous bi seen yëf la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax et vous donne rendez vous demain 17 19h mais bu l'en fàtte le matin ah ñu doxantu 9h midi 88 9 Dunia FM di ma fa fa aussi Aram Touré euh, mu innovation de taille toujours avec la voix du cœur bonsoir et à demain L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission éducative Seine Campus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du secrétaire général euh, du SAEMS. E Il faut arrêter les iniquités qui frappent le système de rémunération. Mm. Ce cabinet-là a fait effectivement l'étude sur le système et les résultats déjà dans le diagnostic démontrent clairement que les enseignants étaient les parents pauvres, mm. que les gens ne se regardent pas comme celui-ci est trop bien payé alors que moi je suis trop mal payé. Quand vous faites la comparaison entre le privé et le public, nous avons l'impression que les agents du privé sont beaucoup plus généreux dans l'effort. Pourquoi Parce qu'ils sont mis dans dans un minimum de conditions de travail. de Monsieur Abdelatif Koulibaly, ministre de la Culture. La Maison de la Culture d'Outasek, en partenariat avec la DTV, organise la 18e édition du Centre aéré du 6 au 18 août 2018 pour tout enfant âgé de 5 à 17 ans. Ce sera du lundi au samedi de 9h à 17h. Au programme, des ateliers d'expression artistique, peinture, poterie, bande dessinée, danse, théâtre, musique, audiovisuel Visuel, journalisme, culture urbaine, contes, projection de films, cassacs, sorties pédagogiques, cérémonie des restitutions, des encadreurs qualifiés et expérimentés, des moniteurs, une équipe médicale seront à la disposition des enfants. Thème année 2018 B, de protection des enfants et impact socio-culturel. centre aéré bon ramener des barines bari njëriñ ku 77 259 15 49 la maison de la culture en partenariat avec la DTV, 18e édition du Centre aéré. jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV 19h waxtu xabaar yi. lefes bokk na ca ni ab beneen doomu Sénégal ñàkkati bakkanam ma nga xewee États-Unis d'Amérique mbir mi ci ak càcc la mujjee ba faaf mu ëpp ba waa ji ñàkk ca bakkanam jege ñaaleeg mbokk ñaawlu ko lool outre Africa jàpp ni jot na état bu Sénégal def gem kattan ba gën a taxaw Sénégal yi nekk ca biti dañu ci ñëw ci biir xabaar nam gën a yaatoo dana ca bokk cité millionnaire foofee njaaxle ma ngay wéy di fa bari lool beneen njaboot lan fa delluwaat génneeti nangu seen kër lu ni mel ñàkkum këyit moo ko sookeem dañ ci ñëw ànd faak Mouhamadou Diallo moo leen seeti woon dana ca bokk tam ci xibaar leneen soxal politique ab kàngam wala ay kàngam ñëw jàppal tànk président Macky Sall ñoom jàpp nañ ni fexe ba saxal waa libéralisme gi mana a sax ci bopp réewum Sénégal moo leen tax a jóg ndaje mañ ci woote woon sàng la daañu ci ñëw ci biir xabaar itam dana ca bokk mbirum lii di publicité ci biir Sénégal ak soppeeku nar cee am ndax amna na ak coppeeku takku buñ nar a taxawal ci wàllu guddi mel waaye itam ñu gis ne mbir mi la koy tënk bari na lool ndax ak trois beeg na muy doxe ci biir Sénégal ay kàngam ci wàllu jàpp ni faaw ñu soppi li fi nekkoon ay loi ba lépp tegu ci yoon ni faram fàcce gi mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun tàmbali xabaar yi jëm ci beneen doomu senegal bi ñàkk bakkanam Jibril Baax ci boppam doonte xëy na jàppoon na ñenn ci ñoom gisoon ni mbirum racisme xëy na waaye doonu ko mbirum càcc la ak càcc lan doon def ca këram faf xëy na Samba Boy faat bakkanam lu ni mel moo tax ñu bari ñaawlu ko anam gim faatoo lim batam delluwaat yokk doomi réew mi ñàkk seen bakkan ca bitim réew association bi nga na nguur nguur gi def kem dimbali consulat ci ay jëmtukaay yu xarañ ngir ñu gën a mën taxaw doomi réew mi nekk bitim réew dañ ci ànd ak Abdoulaye Ndiaye reportage. jëfin gi la nag mi ngi xew ci réewum États-Unis Jibril Ba di doomu xew bu senegal ñu daal di koy faat ak bal ginnaaw bi ko rek ay sambaboy bëggoon a songu mu nekk nag jëfin gu ñaaw goo xamit nag lii di kuréelu Otra Africa dañu ko ñaawlu ba fa ñaawlu yam donte jàpp na ni du uwo bu soqe ko ci mbirum xeet. waaw bi pa tamit euh, yëg nañu sunu mbokk bi nga xam ne moom la ñu faat si États-Unis si Tennessee euh, di jaale ay mbokkam dafa fekk tamit euh, ñeenti doomu sénégalais faatu si accident si Italie et donc comme ñu boobu ba léegi wàllu sénégalais yi nekk bitim réew daf ñu intéressé ñuy jaale seen ay mbokk di di kii donc lépp lu ñuy munti wax rek di dellu encore di leen sonjaat si ay mesures de sécurité yi nga xam ne ak euh, yi ñu war a mën a jëlal seen bopp bu ñu nekkee bitim réew. moom Souleymane Diallo di njiitalu Otra Africa la muy sàkk mooy état bu Sénégal daal di rek jël ay matuwaayam. Euh, si si jamono si jamono yooyu rafetoon nañu lool rafetlu woon nañu loolu euh, bi njiitu réew bi newee dina taxawu doomu sénégalais yi nekk bitim réew protéger leen indi leen li war. mais ñun li ci njëkk a wax mooy ne que yëg nañu ni que bon à travers la direction de Sénégalais de l'extérieur que am na benn fonds boo xam ne mettre nañ ko à la dispo à leur disposition pour le rapatriement de corps des Sénégalais de du euh, duñ si tufli duñ ko kii lu ñuy nangu la mais li gën. mooy ni que euh, nañu renforcer euh, nos représentation diplomatiques yi nekk extérieur ñu renforcer leen en moyen d' assistance pour ñuy mën a di taxawu suñu mbokk yi nga xam ne dañu nekk en situation difficile foofu ñu leen di jàppale. moonte day ci weeru mars gi wees la njiitu mu Sénégal jógaloon dogal rek fas yéene aar doomam yi nekk ca bitim réew waaye nag ba léegi àll na salaw ndax lañu ñu nemmeeku mooy faat gi dafa gën di law jàpp nañ ci rek bi am ci Espagne Italie. Brésil ak gu mu jug yi di réewum États-Unis ak yeneen sax yu ñu fësalagul ci jamono boo xam nag daanaka ñu ci bëri ci askan bu Sénégal ñi ngay rekk mbëkk ngir dem ca tugal. amati ca Italie ñeenti doomi Sénégal ñax seen bakkan accident la bu am ci kaw tali bi ñu nekkoon ci seen tool bay depuis ñibbi oto ban duggoon def accident fukk ak ñaar ñëw faatu am ca ñeent cee doomi Sénégal dañ toppar wala gi ci na mu gën a yàttoo des Sénégal wax ci mbirum cité millionnaire foofee jàppal leen ni ñeen fay génn seen kër ba léegi jeexagul njabootu caane gi daj nan lu ni mel seen kër la ñu nangu ñu leen jaayoon terrain ba seen ay mbokk ñoo teg loxo ci wàllu gu ni mel ñàkkum këyit moo ko sookeem lu ni tax na ñu ngi ci njàqare gu wér péng ndax amuñu fu ndëkk jamono ji tembe Mouhamadou Diallo mu leen seeti woon reportage. tekk tekkaaral bu mel nii see ay anamu dëj moom la ñu nemmeeku si cité Fils Grand ñi ci nous jamono ji amuñu kër li soké mbir mi ndogal bu grande surprise ñu avec l'assistance des forces de l'ordre avons commencé à bagage ñu lan la avec une ordonnance donc nous on est on a nulle part où aller on a nulle part où aller actuellement c'est une on l'a acheté en bonne et forme on n'est pas prêt à quitter. Le jege fanweeri yu De ci 35 un cité millionnaire c'est cité millionnaire une partie nous nous cabinet avocat ak un cabinet huissier Nous indi cabinet avocat est associé associé ki jaay kër gi maître djibi Diallo maître djibi Diallo ak ñi doon liggéeyal bi nga jaay kër gi xam nga ni moomoo kër gi nga jaay. muy jafe-jafe bu lool ñu yoxo. président na service pour nous régler problème définitivement nous nous gën a gaay te ñu bàyyi nit ñi ñu génn ci kër yi kër yi ñoom ñoo ko les preuves sont là à nous. suñ bëggee ñu wooñu ñu wax jox leen preuve bi wax leen lépp nu mu demee mais lii gars yi def teguñ ko fenn benn avocat ne suuf di def lu ko neex. gannaaw bi ñu amee njàqare ñoom dañoo booloo ci benn collectif tey tamit ñu xamle ne seen terrain yi seeni way jur ñu ngi ko jëndoon ci ay booru atu 1970 tey jii ñoom dog nañu pour xeex ngir bañ ñàkk seen i kër. jaajëf Mouhamadou Diallo jógee cité millionnaire Diallo ci benn mbir soxal mbirum tàggat yaram jàpp leen ni ay nux-nux am ci fi nga xam mooy centre régional de formation des personnels euh, de l' éducation bu ndakaaru ndax la ko indi mooy jàpp na ni grève yi bari na lool ña fa nekk di tàggatu nag ñoo yëkkati seen kaddu nañu jot na kilifa gi waxtaan ak seen jàngalekat ndax grève yi bari na ca lan perdre ci ay heure bari na mat na juróom ñaar téeméer ci ay waxtu yu nu perdre yoo xam jànguñu ko ñu jàpp ni lii ëpp na kenn ci ñoom kàddoom jib na fay lay la je Anta jamais. il y a de cela pratiquement deux deux mois Qui ken defu fi cours normalement Inspecteur, yi bu lundi, lundi dañuy grève mardi mercredi jeudi jangale vendredi semaine 10. semaine suivante ñu une grève totale te loolu noonu day impacter ci qualité wu formation bi ñu état dig ñun état moo ñu recruter ne nañu dem leen ci centre yi man dinaa leen jox formation de qualité pour que yéen boo leen génnee ngeen mën a jox à votre tour xale yi ngeen joxal leen ngeen jox leen enseignement de qualité mais depuis boobu ba léegi nag on n'a pas senti. depuis kañ deux mois depuis fin mai ba léegi nit ñaa ngi grève quatre jours la ñuy jàng ci mois bi maanaam bu jàngee tey semaine bi lundi grève trois jours yi ci digg bi. jàng vendredi semaine suivante ñu def grève totale la l'autre semaine ñu jàng lundi jàngaat vendredi mois bi yëpp 4 jours on est à retard de 728 heures d'absence. ñu def pour wax le ministre Mbaye Thiam mi nga enseignement de qualité. dafa bëgg formation de qualité mais comment nous naka lañ formation de qualité avec ça. pas de solution dem ci tali bi nag ci tali bi rek tous les jours ñun ñu ngi fi am nañ jotu tali bi parce que jànguñu boo amul solution ñun ñu ngi fi waaye ñun li ñu koy laaj mooy liñ koy demander mooy mu trouver une solution à ça ñu bañ a àgg foofu noonu parce que moom bu dee bëgg na enseignement de qualité na former les élèves maîtres une formation de qualité ba tey ci wàllum njàng mi jàppale ni fee nga xam mooy daanaka Mboro lycée ba nduppe tey bay ICS bu Mboro foofee barab ba ràpp gi mu ràpp foo ko takk jéggi na ko jëmtukaay yi ak école bi màgget na amul sax ay wanag li ay toilettes loolu lépp teewul ñu ngi góor góorgóorlu ca njàng ma ndax am nañ résultat yu am solo wàllu googu nag moo tax ña fa nekkoon ay jamono doon jàng ci boobu lépp lycée ñëwaat ngir bëgg a jàppale lycée boobee waaye ña nga cay sàkku ndimbal tam ci kilifa yi ñu dugal seen loxo ci wàlle gi ba dimbali boobu lépp daara ba mbir ma gën a luppanteku ngir njàngum gox ba ngir lépp tam ci àllum koom-koom ñu ànd fa ak ci Thiandoum melokan eh, bu jégg dayo bi nga xam ne ise nañ ko ci lycée ICS tey ba Mboro tax na ba ña fa daan jànge bu ba ci no amal ak kuréel goo xamante ni dañ caa fas yéene jàppale seeni rakk ya fay jànge collectif bi taxawal lan moo ko waral euh, dans le passé dañoo seetlu ni ñu bari ñu jàngee ci lycée bi suñ ñëwaan euh, dafa am lu leen daan choqué mën naa ni wala mu marqué leen saal yi euh, da ngay waaru yu bari yenn élèves yi bu ñuy def euh, cours dañuy tàncaloo ci tablement yi parce que doyul yenn yenn saal yi poiture bi ci kaw sax da ngay gis ni dafa dafa yàqu. Euh, école bi ndox mi fi nekk dafa am euh, problème maanaam dafa am fer hein, y' a pas de l'eau potable toilettes yi soo ci demee sax pour nga amoo ndox moo gaanu ya gaanu waayoo hein.

Euh, taux de réussite bi dina yokk. kuréel googu nga xam ne nag moo ëmb élèves ya fa daan jànge ci lycée boobee ñoom de ginnaaw bi nga xamee ne ni gunge nañu seen rak ci bac bi euh, bu pren bi ba ñu bari daal di cay at mi amal bés boo xamante ne weccante xalaat la ak taataan li nga xam ne moo di ay xibaar. bi ñu monté association bi tam tooguñu dañuy monté li njëkk a def mooy comme dañu doon jege baccalauréat bi ñu ne léegi nañ ñëw école bi jàppale élèves yi ku nekk domaine bi nga nekk étudiant ku nekk faculté ba nga nekk xam-xam ba nga am nga ñëw feex séddu ko élèves yi fexe leen jàppale seen révision yi. bisub taataan xibaar yooyu dina amal njariñ lool ñi nga xam ne dañuy doog a am seen bac te fas yéene dem fële nga xam ne moo di université na tax ñu xam ana fan la ñuy teg seen i tànk ci université boobu nga xam ne nag lu bees la ci ñoom. jaajëf Mouhamadou Daouda Diallo wala sax Daouda Thiandoum jóge daanu Thiès wàccaat fi nga xamoo ci Ndakaaru ca centre ba nduppee Talibou Dabo foofee ay jàmbaar ña nga fa wàllum njàng waaye barab ba itam ma ngay dund ay coono yu tar moo tax ndimbal mënta ñàkk jóge ci état dem ci ñoom donte sax état def nay effort yu am solo waaye ba léegi ñëw des na xambin ko ko xam leen bokk na ci directeur bi denk dénk wax la guni mel am ndaje man ca wote woon ci teewaayu Chantal Badji ginnaaw ab formation bu ñu doon amal mu jëm ci nekkinu xale yi nga xam ni dañoo am laago ci lekkool bi centre Talibou daabo jagleel na yile jàngalekat seen ay attestation mu doon ab occasion ci kii di directeur des droits humains ngir mu dellu si ci jéego yi nga xam ni nguur gi mi ngi koy teg ngir ñoŋal li nga xam ni mooy àqu way laago yi. li ñu dajale mooy di leen boole leen ci éducation ci formation ci apprentissage parce que gis nañ ba tàyyi ne ñoom parfois ñu nekk ci poste yoo xam ne lañ njëriñ bañ fa am ku ànd ak ay cërëm yu mat sax du ko mën parce que da yàlla def na ci ñoom engagement def na ci ñoom xel boo xam ne lépp lu ñuy dugg na ñaari gën a dugg ci lu ci gën a bëri day am day am yàlla da ciy def barke. centre Talibou Dabo di ab kër boo xam ni dina jot lu toll ci ñaari téeméeri doomu aadama at bu jot ci loolu sax.

déjà avec leur handicap soo dëkkee Pikine wala Guédiawaye wala Thiaroye li la mën a dimbale mooy un bon moyen de transport nga ñëw jàng après nga delluwaat. ginnaaw bi les cérémonies ñu doon leen jox seeni attestation yi les enseignants nag fu ñu toll nii pare nañu ngir liggéeyal bi les centre nga xam ni day dalal lu toll ci ay junni ndaw yu ami laago loolu nag dina jëm ci dooleel njàng mi waaye itam waat leen seen gëdd ñi nga xam ni ñooy waay laago yi. Chantal Badji duñ génn gun ca centre tali bu Dabo amal nañ fa tamit lu jëm ci wàllu mayam deret ñu ko def mooy association bi ëmb ñi def accident ci biir Sénégal ñoom nag nee duñ toog ñu ci seetaan dañuy maye deret ndax gis nañ ni Sénégal day manqué deret yenn saa yi ca nekkul lu war a mën a manqué ñu bëgg a ñaax askan yi ba ñuy def wàllu gunimel ba ñu ko soxlawoo mën koo jot Ndeye Fatim Lo bu nit dafa faatu ndaxte dafa manqué deret ñun ñëpp ñoo responsable li ni mel di ay président wu ANPAV association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap mu xam bu baax njëriñu deret suñu amee accident ndax moom ci boppam dafa amoon accident ci tali bi mu lëkkaloog centre Talibou Dabo ngir ñu maye si deret li ko tax a jóg mooy bokk ci li gën a ñongal CNTS ci wàllum poche de sang. manqué deret warta mën a am ci Sénégal. Nous avons porté le combat parce que nous avons ñu wootee nit ñi aussi ndax interventions par acte. 80 pour accident de la circulation la nga dem principal ñu 14 def interventions par acte, euh, 80 seulement à Dakar euh, accident de de de circulation la avons xam région 200 interventions. militaire gendarme kenn demul ñi des ñoom ñëpp ñëw nañ wuyu si ci woote gi. ñu ñëw fii bu ñu joxoon pour sacrifice kese pour nga jàppale yeneen ñin ñi yoo xam ne dañoo sonn ñoo nekk ci cas boo xam ne cas bu kenn xamul daal pour nga aider leen ñu sauver leen moo tax lii def naa ko d'ici six ans maa ngi koy def. deux mois j'espère que su amee trois mois bu ñëwee foofu di ñaan man damay dem maye. tey ji nag askan gi dañ leen a war a gën a xibaar gën leen a jàngal ngir ñu mën di dem di maye seen deret lu gën a néew ñetti weex bu nekk. maye deret kii la war a nekk lu tubaab di wax réflexe da nga war a toog rek tous les trois mois ou bien tous les quatre mois comme ni nga xëyee dem plage wala ni nga xëyee dem ne yaa ngi dem noppalu quelque part nit ki dafa dem ba war a dem ba fu ne nii mu war a yeewu rek xëy. dem maye deretam sax saa mu am tapage saa mu am woote saa mu am bi nga xam ne ñoo yor santé ànd ak bàjjenu gox yi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yee nit ñi ñu yee nit ñi parce que nit tam mënuloo ko bëgg loo xam ne xamu ko. ñi am accident lu ci bëri dañuy faatu ndaxte dañoo ñàkk deret bu bëri ñu teel a dem jëli leen ak hôpital boo xam ne am na poche de sang yu bëri dina mën a soppi li ni mel militaire directeur école association yenn ci yu mel noonu ñoo ngi dugal seen loxo ci mbir mi ngir mën a sauver ay bakkan. Ndeye Fatim Lo faneen fu nu mayee deret mooy ca Touba foofee jàpp leen ni banque de sang yenn saa dafay manqué deret moo tax ñu daal di woote wàllu gu ni mel daal di cay poroxandool consultation gratuite ñu nag daanaka jàngoro yi hépatite B bi ni mu lawee ci Sénégal noonu la lawee tam ci gox bu mel ni Diourbel jàpp Touba kon paj mi mënta ñàkk kenn ci kilifa yi kàddoom jib na Ndeye faatu Ndiaye lay wuyoo am na lu mu dénk El Hadji Modou Gueye. ñooy mu supérieur à 50 ñu xool sa tension mu compris entre dix six ak seize neuf ñu laaj la ndax amoo ay maladie héréditaire léegi rek bi may bi ma jógee dem maa ngi wax ak docteur Ousmane Gueye am na donneur de sang bu fi maye def ma jàmbat dara temps yee ne depuis bi mu gëjee maye ba tey looloo tax ma jëlal ko type glycémie elle s'est retrouvée avec 5 grammes moom laa bëgg a woo kooku dañ koy hospitaliser comprendre léegi su ko defee xamu ko xamu ko léegi dama glycémie bi mu génnee fii la ma toog li ma gën a perturbé sax loolu da cee léegi ba pare rax si dool yi nga jël bone jaamu yàlla bi sama sang ba sëriñ Saliou yàlla na ko yàlla fay nee na xeetu jaamu yàlla yëpp maye deeta ci gën a kawe ndax ki nar a faatu nga jox ko sa dere neen su dundatee lu askanoo si moom indi nga leen fi da jaar te yàlla wax na ko ci saar ngi sóora du may daati am na ci donc ku di dundal kenn nit mel nga ne dundal nga humanité bi kon am na avantage sur le plan santé yow nit ki am avantage sur le plan social li ngay dimbale doomu aadama bañ a ko defee ñu defal la say résultat ci secret nga xam sa sérologie hépatite B hépatite C ak HIV bi nit ñi ragal te am na ARV ak BV xam sa groupe sanguin nga mën a jël en charge sa santé bu dee gis nañ ci hépatite bi nga am suivi médical bu dee gis nañ ci HIV nga am suivi médical buñ ci gisul daal chaque 3 mois bu dee góor nga ñëw maye pour am carte bu dee jigéen chaque quatre mois nga ñëw maye. ma nga noonu muy kàddu yi uh, Ndeye Fatou Ndiaye Diop mi nga xamante ni bii ay kàddoom El moo Modou Gueye moo ko tàttan jógee diwaanu Touba wàcc fe nga xam mooy ca Sam Notaire ca Géejawaay foofee jàpp leen ni ñoom daanaka ngir ñu am fu nu fajoo jafe na lool dafa nekk ne fajukaay dafa màggat ba jéggi dayo ba jumtukaay it manqué na lool. moo tax ku fa lot bëgg a dem l'hôpital dangay am njàqare ñu xuus ca gox ba ànd faak Abdoulaye Wañanga faju ci anam yu mucc ayib nekk na loo xam ne lu soxal askan bi yeewoo ca commune bu Sam lu mel ni ca quartier Daaru Salaam quartier boo xam ne amul benn bërëb fajukaay loolu moo waral ba ñu amal fa benn journée de consultation gratuite ak maye deret lu ni mel lii di mouvement J'aime le Sénégal moo ko daal di amal ci boobule consultation gratuite ñu bëri ñu ngi leen daal di faj foofule. tey dañu organiser activité boo xam ne dafa dellu ci wàllu don de sang. waaye itamit dellu ci wàllu consultation médicale surtout ci wàllu bët. ci boobule activité ay feebar yu bëri lañu fekk ci biir askan bi. xam nañ ne dañoo nekk réew moo xam ne actuellement nit ñi dafa am lu ñu soxla te la ñu soxla état mënul lépp kon ñun en tant que citoyen rek ñoo mën a am benn solidarité solidarité boo xam ne dañuy jàppalante suñu biir askan bi yeewoo ca quartier daaru salaam daanaka ëpp na junney nit waaye nag teewul quartier bi amul benn poste de santé moo waral ba kii di président mouvement J'aime le Sénégal di sàkku nguur gi mu taxaw fa ab benn bërëb fajukaay mais daaru salaam boo ko seetee li fi nekk ci ay kër ëpp na junni kër daaru salaam fu nii mënul am sa benn poste de santé fu mu toll nii pour ñu faju dañuy jéggaani raison pour laquelle ñu jàpp ne quartier boo xam ne lafa nekk ci ay kër ëpp na deux euh, mille maisons yaakaar naa ne quartier boobu kat quartier boobu mérité na am sa benn poste de santé lu mu ndaw ndaw. faju ci anam yu mucc ayib nekk na lu jafe lool fii ci banlieue bu ndakaaru lu ko waral moo di amul ay bërëb fajukaay yu bëri yuñ fa tabax. Abdoulaye Wadianga jaajëf ci wàllum politique bangas bi ëmb ñi fàq ci PDS fekk président Macky Sall ñoom ne ñu dañoo bëgg a fal président Macky Sall bu nu àgg élection présidentielle 2019 ci premier tour bi jox ko ab deuxième mandat ndaje man ci woote woon yaatu woon na lool Codé Ndiaye ma nga ci woon reportage. rassemblement pour la pérennité du libéralisme doon ab kuréel boo xamante ne nii ay anciens responsables PDS ñoom ñoo ci nekk ñoom nag seen mébét moom mooy fexe ba fal président Macky Sall ci premier surtout bu élection présidentielle pour 2019 Souleymane Dene Ndiaye ak ay naataangoom di rafetlu bilan bi nga xamante président Macky Sall amal nako douma ma responsable benn deuk wala Ben quartier responsable national la deuk bu dem ci Sénégal amna fa ñu fa représenter suñu parti na nous ñu xamné rassemblement la boo xamné Pape Samba Mboup ci Fabuli ba gay ngi ci Fabilu gay am Kolda man aw moko Kolda li Pape Samba Mboup am région de Casamance man aw moko fa Serigne Mbacké Ndiaye li am Xombol am ko euh, Thiès am ko ci yeneen dëkk man aw ma ko fa donc li ma am Touba euh, buñ ko booleeg li ñeneen am Touba ak li ñeneen am euh, Tivaouane ak leneen Kaolack na baay yaakaar naa na am nekk mbooloo moo xam ne day ajouté wu ci mbooloom président Macky Sall. responsable yi nekk ci kuréel bi ñuy duppee rappel nag ñoom jàpp ni président Macky ab libéral la comme ñoom waral nag ñoom ñu jàpp ni moom mooy candidat bi gën. initiative bi du initiative bu yem ci libéraux yi rek. initiative la boo xam nañ dañ ko ubbi euh, ubbi ko ci képp koo xam ne bëgg nga ñu falaat président Macky Sall 2019. maintenant li ñuy woowee rappel mooy rassemblement pour la pérennisation du libéralisme comme ni ko suñu euh, responsable euh, ki nga xam ne moom moo ñu inspiré tudd président Abdoulaye Wade ni mu koy doon ñaanee yàlla parce que newoon na moom dafa bëggoon libéralisme régné ci réew mi 50 ans wala lu ko buñu ñu ci responsable yi nekkoon ci parti démocratique sénégalais décision bi ñu jël président Macky Sall dafa ñëw rek ngir soutien muy njàppale bi nga xamante ne Bokk Yaakaar mu ngi def ko ci président Macky Sall. ñun ñu ngi soog a dañoo fekk si ñoo ñu déjà pour bousculer kenn ñun ak Macky Sall dañu ay ay euh, de diggante kon ñun dañuy def synergie des forces maanaam boole suñu doole euh, pour président lu mu amoon mu yokku kuréel bi nga xamante ne nii Souleymane Ndéné Ndiaye Serigne Mbacke Ndiaye Pape Samba Mboup ak Fabou Liggéey ñoom ñoo ko sos fas yéene wu ñu yem foofu ñoom nag ñu ngi annoncé ab plan d'action boo xamante ne nii bokk na ci ab tournée boo xamante ne nii ci biir réew mi la ak ci bitim réew lépp jëm ci wàllu fexe ba liggéey ngir nag président Macky Sall daal di falu ci premier tour ci élection présidentielle bu 2019 Codé Ndiaye ginnaaw ñi fàqe PDS fekk président Macky Sall ba koo fal ci premier tour ci deuxième li nga xam mooy élection présidentielle 2019 yi ñi itam di ay soxna bokk ci benn bokk yaakaar nekk ca diwaanug euh, Malicounda diwaanug Mbour ñoom it seen kàddu jëm na la xam xamle mooy fal président Macky Sall mu leen tax a ma Mamadou Diop ca Mbour. gannaaw ñuy dem ci présidentielle yi ci atum 2019 fii ci département bu Mbour ci biir APR daanaka foo gis mu ngi yëngatu ci dëkk yëpp ñëpp ngi def seen képp lay kattan ba fexe ba militants yi remobiliser wu waaye tamit ñu amal ay animation ci biir parti bi ngir fexe ba Macky Sall jotaat ci nguur gi ci premier tour ci présidentielle yooyu le li nu mel moom la ñu gis fii ci dëkk bi di Mbaling te nga xam ne maire commune bu Malicounda fii la cosaanoo jigéen ñi fi nekk ñoom kat jóg takku ngir fexe ba ñëpp mën a voté Macky Sall élection ñu jublu. ñu ngi bëgg nag ci 2019 bi ci kàttan yàlla ñu dem waxuñu deuxième tour ko ko dooleel la xam te moom moo ñu dooleel macha allah. ñu ngi bëgg nag na ko ko xoolal bu baax jàppal bu jàppee jigéen ñëpp te su ko moom tëdd jot na mu dem dóor daan ñibbisi. ki nga xam ne mooy meeru Malicounda moom kat yaakaar bu baax a baax ci jigéen ñi ngir ñu votel ki nga xam ne mooy candidat am ci lu jëm ci wàllu parrainage bi lépp li nga xam ne moom la ci président soxla ci biir département bi Malicounda mën na ko koo jox donc ma ñëpp di quatre mille cinq cent femmes ñoom pare nañ pour que ñun kese bu ñu bàyyee sama yeneen collègue man ci at ñuy amal seen autofinancement jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseau APR bu mbaalinkat gis nañu ne seen xaalis dafa yokk bu baax a baax ndax ci benn million la ñu jógee egg nañu léegi ci fukki million. mu nekk loo xam ne tax na sax ba ñuy fecc ko woy te ñoom jàpp nañu lépp li ko waral mooy Maguette Sène di maire bu commune bu Malicounda. Mamadou Diop jaajëf xibaar yi ci benn wàll mbirum publicité dana am changement bu ci am ndax bànqaas bi ndénk wax léegi jóg na ak ay pexeem ci wet ga nag di TV càmbar mbir mi. aj Moussa Bey dafa doxantu xool acteur yi ñu waxtaan ci wàllu guddi mel am ñu xalaat ni lu nduppee réseaux sociaux yi ak jumtukaay yu bees ci wàllum internet soppi na mbir mi moo tax mbir mi pëcc moo ci am kon xëy na soppi sax loi bi fi nekkoon mënta ñàkk reportage ab dëkkuwaay nag bu ñàkk kilifteef doon gis-gis bi nga xam ne nag CNRA fësal na ko gannaaw ba mu amalee ab saytu soxal rek secteur bi ëmb wàllu publicité ci ëttu yëglekaay yi mbu mbay boobule nag dara waralu ko lu dul secteur bi ñu bàyyeek boppam waaye it teewaayu yëglekaay yu yees yi. këru tas xibaar yi dañoo ñàkk ay moyens. pour euh, mën a euh, jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy présenté xëy na lu ñu mën a pré euh, solo wala dara. Mm-hmm. ñeneen yi itamit da ci am ñoo xam ne sax dañ koy def sax te xamuñu ne loolu loi daf koy tere loolu ci publicité bokk ci. am na aussi beneen aspect boo xam ne dañ ko constaté mooy publicité déguisée wala publicité mensongère maanaam ngay seetaan benn série wala benn émission ñu dem ba sa biir di wax loo xamante ne que lii publicité la. Mm-hmm. te te code publicité loi bi dafa wax ne saa yooy jàllale publicité ci sa programme da ngay taxawal programme annoncé ne yaa ngi jàllale publicité su publicité bi jeexee nga annoncé ne publicité bi jeex na. média yi ñu ci naam waaye du ñoom rek ñoo ci am wàll boobule phénomène nag daañ ko gisit ci mbedd yi ak teewaayu panneau publicitaire yu bëri yi lalub acte trois de la décentralisation nag nga xam ne may na communes yi doole munas nañ ko jàppee li gën a yokk problème bi. bi acte trois ñëwee nag dafa gën a ndax léegi ville de Dakar yore tu ko commune seen bopp ñooy koy dogal. Mhm. ñooy joxe autorisation ñuy ànd ak ñi amee panneau yi waxtaan ak ñoom pour ñu xool fu ñu koy sam. Mhm. mais sampin wi léeg-léeg du tegu ci lu xel mën a nangu ndax am na ci panneau yoo xam ne ay panneau weñ la maanaam amatul sécurité boo xam ne ëllëg bu ko ngelaw li ëffee wala nañ koy sampi du dëgër mhm. mën na indi loraange ci askan wi. léeg-léeg sampin wi aussi daañu ko samp foo xam ni gis-gis bi. ci tali bi du neex. ba mën na indi ay accident yu bëri. ak yeneen jàngoro yu bëri yoo xam ne gis nañ ko. tey ci mbumbaay boobu la ñu seetlu ne mu ngi wéyandi nag acteurs yaa ngi xaarandi ñu lar rek ab doxalin bu yees ci wàll wi loole nag faw mu jaar rek ci saytuwaat loi numéro bu ñaar fukki fan ak juróom ci wéru janvier 1983. loi boobu bi am li xew jamono ji amuloon ce qui fait que nag kon suñ ko mettre à jour ñu bare dinañ def publicité soit ñi bañ xamné niñ ko défé jaadul wala tout simplement duñu respecter loi bi te su boba xeyna duñu am ay mécanisme en tout cas régulateur lu mel ne du am ay mécanisme pour remettre à l'ordre li gën a mucc ay te jamono mom ay panneaux yo xamni day nek l'aide maanaam rafet na taaru na waaye di indi image yu rafet ba pare di indi leeraay ci dëkk bi loolu moom méngoog jamono boo génnee ci réew mi dëkk yu bari réew yu bari loolu fa tàmbali na am fii nag mais maaseegul parce que dafa jafe alal ju bari lay laaj mais loolu la buñ ci waxtaanee ba méngoo xam ne dëkk bi am na nu mu war a mel di wax rek ni nag ne consommateurs yi bokk nañu ca ña ci gën a jël lorange li waral sax CNRA gën a sukkandiku ci yokk dooleem ba mën a bàyyi bët ci contenu publicitaire yi waaye di ñaax état bi ngir mu yëngu ba mën a tegaat secteur bi ci yoon Elhadji Moussa Bey ñu wax ci wàllum koom fexe ba fee nga xam mooy daanu Casamance doon barab bopp mën nañ caa awe suqali lu bari ci biir réew mi ci wàllum koom ndax euh, Casamance ak foofe ni mu frontière ak ay gox yu bari ci Afrique na Guinée Bissau kon nekk na barab bopp am ko mën a fàbbeeciku ku ko xam ne mooy Moustapha Sow muy woo état wu Sénégal mu xalaat ci wàllu gu ni mel dénk na kàddu suñu correspondant ba ci daanu ko si gi ci fan yi ne euh, Afrique Union programme bi mu am bi gën a am solo Moi, il y a une zone de libre échange intercontinental pour faire ba réewu yi di jëfalante ci seen biir euh, te je pense que tey dëkk bu mel ne Sénégal pour ñu mën a réussir programme boobu il faut que ñuy jaxasoo bu baax ak dëkk bu ci mel ne Gambie ak Guinée Bissau euh, te jaxasoo Gambie ak Guinée Bissau euh, si Casamance bii la war a mën a jaaree parce que gis ngeen position wu Guinée Bissau ak Casamance position wu Gambie pour jugee beneen partie Dakar le nord pour ñëw fii il faut nga jaar Casamance et je pense que yaakaar naa ne gouvernement bu bees bi bi fi nekk xam xam nañ comprendre nañ loolu euh, xanaa di gën a ñaaxaat rek mooy li ma waxoon investisseur privé yi euh, sénégalais yi que ñu ñëw xool fii Casamance ndax li fi ne euh, je pense que nekkul ci benn région Sénégal et li fi nekk di bàyyi doon na opportunité d'investissement yoo xam ne ni yu am solo la ma xam ne loolee moo laf laaj ci xibaaru marax ci seen télévision DTV sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun dana amaat xabaar incha allah bu 20h jotee ci français Adjaratou ndey Arame Touré moo koy faram fàcce ma jox leen rendez-vous ci kanam tuuti 22h seen émission diisoo incha allah sama gan di doon Bayla Wan ancien directeur général bu LONASE jamono yi nguuru président Abdoulaye Wade jamono ji mu doon kii coordonné kuréel bi ëmb xaritu président Macky Sall mooy doon sama gan kon ba ci kanam incha allah jaa jëf. ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déculture. Alors cette fois-ci, préparez-vous à rencontrer des personnalités hors du commun qui ont marqué le monde culturel à leur manière sommaire. Aujourd'hui, Déculture vous parle de Musicbee, première plateforme de téléchargement de musique via SMS en Afrique. Il y a deux ans, lors de son lancement, la presse internationale en faisait l'éloge. Mais en 2018, où en est vraiment la plateforme Moustapha Diop, le directeur général, nous a reçus dans ses bureaux. Ils sont sur nos murs, ne passent jamais inaperçus et sont les vrais symboles du street art. Un art parfois jugé incompris, illégal, mais nous, on est fans. Et c'est pourquoi on a décidé de passer à la loupe quelques rues de Dakar pour faire notre petite sélection de graffiti. Attention, sélection totalement subjective. On vous amène ensuite à Popinguine où l'artiste peintre Babacar Diouf nous a accueillis dans son atelier. Rencontre avec un artiste authentique qui place la femme et les enfants au cœur de ses œuvres. Et enfin, place à notre petit agenda culturel, sorties ciné, albums à écouter, événements à ne pas louper. On vous dit tout dans ce nouveau numéro de Déculture. C'est parti. MusicBee est le premier site de téléchargement légal de musique via SMS. Alors quel est son modèle économique La lutte contre le piratage est-elle efficace Nous sommes partis à la rencontre de son directeur général, Mustapha Dio. Alors voilà, donc euh, je vous demandais euh, de nous présenter euh, MusicBee. Euh, si vous pouvez un peu nous expliquer ce système assez original de télécharger de la musique via SMS, et comment est-ce que euh, vous et peut-être euh, des collègues avez développé cette idée. Donc voilà, on vous écoute. Alors Music Bee, euh, c'est parti de Solide. Hein. C'était un produit de Solide avant d'être une société à part entière. Donc Solid, c'est une société informatique, on est très connu en fait pour l'informatique qu'on fait, notamment au niveau des banques, au niveau du SMS banking et le reste. Euh, je suis musicien. Euh, c'est pas par volonté et par euh, juste par amour du piratage que les gens achètent d'or des CD piratés. C'est qu'il y a un gros problème de distribution. autant dans, les années 80, 90, on avait des distributeurs très forts. Je veux parler de Taladjani, des cantines qui vendaient. C'était connu, on savait où aller chercher le produit. Aujourd'hui, c'est moins évident. C'est dans la rue que ça se passe. Et c'est des pirates pour l'essentiel. Donc on s'est rendu compte, et d'ailleurs quand on fait le benchmark, parce qu'au début on a commencé par le SMS, mais la diaspora nous a vite appelé pour nous dire nous comment on fait pour acheter. On a mis donc les, les, euh, moyens de paiement les plus standards, PayPal, euh, carte Visa, etc. Et les gens de la diaspora, ils, se retrouvent et ils sont contents d'acheter de vieux morceaux, euh, du Super Diamano, Baol, des choses de ce genre, des, choses qu'ils ne peuvent pas trouver parce que la distribution aujourd'hui ne leur permet pas d'avoir ce type de, Et donc oui, ça, permet effectivement de lutter contre le piratage. Et lorsqu'on fait donc un benchmark entre les différentes formes de paiement, moyens de paiement, on se rend compte que le SMS est le moyen de paiement qui, est le plus utilisé. Donc ce qui veut dire que les gens ici arrivent à acheter de chez eux par un SMS un morceau. Et euh, oui, c'est des parts de marché qui sont, qui sont prises au piratage. Mais je pense que c'est un appel du pied. Euh, les autorités compétentes devraient faire un peu plus d'efforts pour que ces soient vraiment reconnus comme illégal. Parce qu'on a l'impression que c'est tout à fait normal. Euh, ce qui se passe dans nos rues, que tout le monde voit, que, je ne vois pas de répression là-dessus c'est extraordinaire, je suis d'accord avec vous. Euh, manque de bancarisation, des CD qui se vendent euh, un peu à la sauvette euh, dans les rues. Donc tout ça, ça fait que vous, ça vous permet aussi d'avoir l'idée de créer Musique B, mais juste sur la vente de musique à la sauvette. Comment vous expliquez que par exemple dans un pays comme le Sénégal, qui est quand même très développé en Afrique de l'Ouest, on en soit à la, pourquoi je ne sais pas, il n'y a pas de point de vente où se vendent les albums. Pourquoi le nouvel album de Yosundu, c'est un, vendeur sur l'autoroute qui va nous vendre pour, euh, je sais pas, 500 francs Je pense que vous touchez du doigt deux points qui, me semblent importants. Un, c'est peut-être l'importance qu'on donne au secteur de la musique. Est-ce que les artistes sont respectés c'est un, point, je pense que pas suffisamment. Deuxième point, c'est vraiment, le, on ne fait rien contre le piratage. Aujourd'hui, il y, avait des, réseaux de distribution. À l'époque, quand j'étais plus jeune, dans les taxis, on vendait des cassettes. Euh, c'était un réseau organisé de, distribution. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus parce que le piratage euh, c'est plus à la sauvette. On vend presque de façon normale des CD euh, piratés. voyez dans les feux, au feu rouge sur, la VDN, il n'y a pas besoin de. On sait où on va acheter du pirate. C'est comme si c'était accepté. Et c'est ça qui, rend euh, très difficile justement euh, que le secteur puisse vraiment s'en sortir euh, correctement. L'artiste investit énormément dans les studios et tout, et après pour voir tout son travail qui est pris par des pirates. C'est pour ça que MusicBee aussi, je pense que c'est une, solution parce que quelque part, l'artiste n'a plus à investir sur des CD. Depuis le studio, il sort avec son, fichier numérique, il est capable de, le vendre partout dans le monde de toucher le monde entier, le Sénégal et le monde entier, euh, alors que si c'est basé sans... Il les paie en avance et après il n'est pas sûr de récupérer ses sous parce qu'il y a des pirates qui euh, on espère qu'on sera quand même conviés au troisième <laughs> anniversaire. J'espère qu'il n'y a pas un boycott de la presse. Mais euh, non, non, mais voilà. Mais en tout cas, dernière question qui peut-être, enfin, c'est un peu un lien avec Musique Vie, mais on sort des sentiers battus. Vous êtes artiste, vous êtes entrepreneur, euh, il est difficile à faire euh, le, link entre les deux. Euh, comment ça s'est passé tout ça votre vie C'est assez personnel, mais bon, en fait, moi, j'ai... mieux d'être entrepreneur qu'artiste C'est venu un peu, on va dire, j'étais étudiant, j'étais, je faisais maths, j'étais mathématiques, et, je, faisais de la musique. Et la musique m'intéressait beaucoup plus que les maths. C'était pas forcément ce que tout le monde aimait. Et donc euh, j'ai dû faire des études informatiques euh, au Canada et puis revenir, euh, bon, on va dire entreprendre. mais ce qui ne m'a jamais, j'ai jamais abandonné cette fibre artistique. C'est vrai que c'est dur, c'est dur de ne pas dormir la nuit, de jouer et puis de revenir le jour travailler. Mais bon, c'est un choix et je pense qu'on a tous besoin de ce de soupape, il y a tellement de pression dans, ces boulots, surtout l'informatique, où ça va très très très vite et il faut se mettre à jour chaque jour. C'est beaucoup de pression. Et euh, oui, euh, d'autres lobbies, d'autres euh, activités comme la musique, ça permet justement d'être plus efficace quand on est, on est dans, la, Je pense que c'est des choses qui sont allez, associables. il me semble difficile de vivre que d'une chose et de n'avoir qu'une seule activité, qu'un seul focus. Euh, c'est bien de diversifier. Voilà, c'est un homme de passion. En tout cas, on vous souhaite bon courage euh, pour euh, votre activité d'artiste comme de directeur d'entreprise. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette interview. Si vous avez juste un dernier mot à dire à des téléspectateurs qui ne sont pas abonnés à Musique Bien, alors évidemment, on ne fait absolument pas de pub. Mais on lutte en tout cas, nous, contre le piratage. Donc je ne sais pas si vous avez un petit mot à leur dire pour les convaincre de rejoindre. un, petit mot, euh, c'est d'abord les remercier d'ailleurs de nous écouter et de dire que oui, il est possible d'écouter de la musique, la musique qu'ils aiment, sur musicbee.com. Et puis c'est très simple, c'est une production purement sénégalaise je pense que quelque part, il est bien d'appuyer euh, ce qu'on fait euh, localement. On fait de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui se font par des euh, Sénégalais. et, et je pense que c'est à appuyer. en tout cas, en achetant, vous nous aidez et vous aidez les artistes. À Dakar, la culture urbaine est partout sur nos murs. Alors on s'est amusé à se faire une petite sélection. Attention, choix très subjectif de l'équipe. igqirha kuqongqothwane igqirha lendlela kuqongqothwane igqirha lendlela kuqongqothwane seqabele gqithapha kuqongqothwane seke qabele gqithapha ngqothwane seke qaba legqitha bhayelele ngqothwane seke qubu legqitha bha ngqothwane igqirha lendlela ngqothwane igqirha lendlela nguko ngothwane igqirha lendlela yelela nguko ngothwane igqirha lendlela nguko ngothwane sengiqabele gqitha bhayelela nguko okay. Baba yorinyokun, c'est la bàbá lókè. Ẹ̀rànkó le peintre espagnol baroque, les enfants, les femmes, vous allez le voir, ces sources d'inspiration sont très diverses. C'est parti. Alors Baba Diouf, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le lieu où on se trouve Bon, ici, euh, on se trouve euh, dans l'atelier de production, euh, mais au début, c'était l'hôtel. Et ensuite, son propriétaire est décédé, la famille l'a donné en don pour l'Empire des enfants. D'accord, et l'Empire des enfants, qu'est-ce que c'est L'Empire des enfants est une euh, association à, but non lucratif, un euh, centre d'accueil d'urgence D'accord. pour les enfants en situation difficile. D'accord. Et vous, en tant qu'artiste, euh, qu'est-ce que vous faites particulièrement pour, pour eux L'Empire des enfants, je suis animateur en éducation artistique là-bas. D'accord, très bien. Et ça fait des années que je suis, ça fait cinq ans que je suis, je suis là-bas. Euh, les activités que je fais avec les enfants m'ont amené aujourd'hui à faire beaucoup de choses pour les enfants. Ce que je fais souvent, la peinture, c'est les enfants qui influencent peut-être euh, ma peinture aujourd'hui. D'accord. J'aime bien dénoncer ce qui se passe euh, dans leur univers. J'aime bien faire part à tout le monde des souffrances qu'ils vivent au mhm. quotidien sur l'histoire des